قد على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سبيلنا ولي الولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي بوكي جولي بوكي تالبي bokki déglukatu rajo xasida online tuba monde bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu loolu ngi sant sunu borom subhanahu ci may nu may nu dundaam ba fekkewaat dibéer ji tal ko di def jataay bi julli ci sangu sang yi ku njëkk ak ku mujj xaatimi nabiyina wa imaamil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ki tax ñu tal ko noo ngi ziyaare bokk yëpp di leen déwénati di leen balaax di ko sàkku ci yéen di yeesal rek eh, jégalu ñoo ngi jégal yëpp di sàkku ci yëpp ñégal yàlla mu yàlla mboolem ñu te ñu teewee at yu bari barkati xadimi Mustafa noo am mbégte del soit ak ko baaxoo def dimanche bu nekk ci waxtu wi ci seen émission diaspora ngeen di ci ànd ak seen bokkum taalibe jëwalu xaadimal Mustafa Touba Parma feggoo ak eh, sëñ Modou Bay Thiam Baye ci wàllu xarala ji eh, ànd ak sama magi daara Vieux Tall Parma sëñ Sam Demba Dia Touba Sustana Abdou Ba Touba di leen ziare bu baax a baax euh, di leen dalal tamit euh, ndax émission bi yéen a ko moom ni ñu koy faral di waxee noo ngi yeesalaatam suñu jaayanteeg sëriñ Touba di ko seeral ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Sidi Moukhtar mu ngi ñaan sama borom mu bàyyil ko fi lislaam ba mboolem naa li nga xam ne am na ko te lépp jëm ci lislaam suñu borom àggale ko te nu ànd ko ak moom. ñu di ko ci biir ñaan boobu mboolem bokkam yi baax yi mu seqal toolu lislaam yëpp. bu ñu tuddee ku mel ne Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin ci bopp njabootu maam Cheikh Seydi ci maam Mouhamed Koundine ci bopp Ndiassane njabootu Ndiassane tudd ci seen Abdoulaye Thiaw ñëpp mu ngi leen di ziare di leen jox seen wàccuwaay di mu dëgëral leen wéral leen ba lu baax liggéey bu tedd bi man ngi teg seen loxo ñu àggale ko fa ñu ko bëgg a àggali barakati Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuyu sama jëwriñ maa ne liggéey bi Pape Demba maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu xam naa kon laata ñuy tàmbali ci waxtaan rek kon di ziar tam suñu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp liggéey bi ku mel ne sëñ Ibrahima ndeysaan tey rek mi ngi may woo di ma nemmeeku lool di ma bëgg ci lool am ci mbégte lool ndeysaan sëñ Ibrahima Ndiaye ndeysaan tey rek mi ngi woo di ma nemmeeku maa ngi koy ziar baax di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal sëñ Moustapha Kamal di ko ñaanal sëñ Ibrahima Dolo Xasanaat ndeysaan di ko ñaanal eh, tamit ki nga xam ne mooy sëñ Mahmoudan Mbacke moom sëñ Basir moom soxnaam sëñ moom borom jàllu waxti ndeysaan bi ma demek rek magalu balen rek magi ngi bon benn borom ah kon ki mu seigne Daaru hasanat ki mu seigne Ibrahima Jóob mbax ni mané ko waa gis nga rek jëmm ji day nii ndeysaan nga xamné ne sant rek ndeysaan ñi ñangi sopp mbokk taal bi te jadi jadi sax gis ñu xamné la loolu seigne Tuubaa rek moo tax kon mo ngi leen di sant baax di leen gërëm di sant auditeurs bi ak fu ñu mën di dégg nak suñu kaddu ngi leen di ziar baax di leen fa di ñaanal ak mu ci tawfiya xamna kon damay jox kaddu seigne sëñ mu ñu ak bokk auditeurs yi sëñ Pape bisimilah auzu billahi min asheytan arrajim bismillahi rahmani rahim rabbi sarax li sadri wa li amri waxlul waxdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum mbokki jullit yi salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñoo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen ci fii ci rajo xasida online ci seen émission diaspora ni ñu koy defee dimanche bu jot di ziar ñëpp euh, te jiital ci ziar bi suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Sidil Muxtaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànn wér di ziar mboole mi kilifa diine di ziar sama jorin sama buntu cheikhul khadim mu di cheikh muntaha mbacke di ko ñaanal mu fi lol tan wer di am mbégte di len ziar di bal ak ñep tay baalu ak ñep ci wéru tedd wi nga xamni mom moom lañ jóge mu di cheikhul ramadan euh, di ziar nak euh, suñu jëwriñ ñi ci radio bi suñu dan ibrahima ak mbokk yi nga xamni ñom lañu bokk radio bi yëp ñu ngi leen di ziar leen ak leen ci ci weeru tedd wi nga xam ne moom la ñu jóge di ziar nag yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal émission bi di ci jiital sëñ Cheikh sëñ Vieux sëñ Abdou ak sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall di ziar ñëpp daal ku lim juum waaye eh, eh, amel nañ leen ak ziar boo xam ni ak wàccuwaay eh, di leen ziar bu baax rek ci weer wi nga xam ne moom lañ jóge mu di weeru Chahru Ramadan na rek damay jox sëñ bi rek hmm, duggu mom buñu paré rek ñu delloo la waat kàddu bi sëñ sax jere jep ye bismillah bi waaw euh ma ngi sant yalla bu baax di julli ci sangu-sangu yi di len jox seen wàccuwaay yéen nit seigne cheikh yow ak seigne pap di ñaanal seigne cheikh fi di maktar mbàkke yalla yalla yàlla ba limu nal ci yoon wi yàlla defalal ko lu kawe njortam ya di nuyu sama buntu ci sëriñ Touba di e, sëriñ salim Mbacke daru salam di ko ñaanal moom gudd fan ak wér di nuyu mbokk auditeur yépp di nuyu bépp doomu aadama boo xamante ni yaa ngi jàpp ci rajo bi muy auditeur ak képp ku mu mënti doon ñi dugg ak ñi teewloog ñëpp maa ngi leen di ziar di leen ndokkeel ci e, korite gi ñu génn di leen baalu àq Euh, di wax rek ni euh, lépp luñ fi wax ci euh, rajo bi rek defar rek la. Mmh. waaye du du du lu lu saxoo ci xol war a dem ci xol yi ngir ñagasal ko. kon mmh. du ñu jóg di saxoo rek lu dul di di baalu àq saa su ne. Mmh. ñu jàpp rek ni mbokk taalibe la rek buy wax rek pour. jema xol luy defar ak euh, luy jëmale askan wi kanam kon ñu ci profité rek di balu ak ñep di bal ñep ak di ñaanal ñep euh, guddu fan ak wér fekkee ay ay ay dewen yu bare bare bare bare bare di nuyu Modou mo euh, seigne Modou mbay bay Fall diko ñaanal momit yalla deugereul ko ndax liggey bi mi ci def rafet na lool mhm. du doon ak mom amana du soti kenn ku ne nek fa nga nek yombalal yefi lool ba kenn ku ne ya nga fo mënti ne ci aduna bi ngay mën di tewlu ak di mëna participer ci radio bi di ci joxe sa xalaat dëgg yalla di contane lool di delu suwat ci ci thème yi nga xamanteni soxal na suñu communauté eh, ndax ñun communauté bi rek mo ñu ñor dëgg yalla lepp lu koy jëmele kanam rek ci loolu la ñuy nekk sa su nekk waaw xanaa di taaxeerlu rek ñu dugg ci thème bi uh-huh. euh inshallah ñu joxe ci suñu xalaat rek ak eh, luñ ci xam astu tuut jërëjëf seigne Cheikh jërëjëf euh, bi jërëjëf Pape Demba noo ngi kon sant ñëpp di nat di jaare l'islam bi yëpp ummatu islam bi yëpp sunu sang yi tedd yi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ci fan yi muy Serigne euh, Moustapha Sissi bu pir la ko jiitu Serigne Aliou moom Serigne Cheikh Amadou Mbacke yéen faat na euh, Serigne Moustapha Sissi pir son excellence di ko xam ne wax dëgg yàlla liggéey liggéey bu am solo ci diggante relation yi nga xam ne mooy diggante Sénégal ak maanaam li nga xam ne mooy le monde arabe bokk na ci vraiment les artisans de l'organisation de la première conférence islamique OCI rawatina bi ñu def Sénégal ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ne vraiment yóbbu ma lettre de créance fu ne ci réewu arab yi ci kon ñoo ngi ñaan yàlla na ko mag ñu baax ñu teeru ca àjjana yi Firdawsi ku dégg sunu kàddu tam mu defal ko ay ñaan muy son excellence Serigne Moustapha Cissé yàlla defal mu newoon tamit doomu diine doon xalif généralu Pire ak Mamadou Sufi Pire yàlla na ko yàlla li koy leer taas ci barke di ziare tamit njaboot gi Serigne Isaaxa Mbacké moom Serigne euh, Cheikh Ahmadou Mbacké Diène a nga xam ne moom Serigne Cheikh Abdou Bali ñoo bokk lépp moom tamit ñu koy ziare yàlla dafa def mu wàcc mu tamit keroog àllarba ñu ngi koy ñaanal suñu borom wan la ko ak maamam yu tedd ya wala ko si Cheikh El Khadim tamit njaboot gi waa Daaru Muxti Serigne Maam Balla Mbacké moom Serigne Cheikh Aw Balla moom Serigne Modou Aw Balla ndeysaan tamit dafa wàcc France la ne baax ku di grand intellectuel liggéey liggéey bu rëy ci diaspora bi yàlla na ko yàlla mos nañ ko dalal ci émission yi ndeysaan maa ngi koy fàttaliku mos nañ ko dalal émission donc kon sëñ Mame Balla Mbacke moom ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla xaar àjjana te dolli ko ay leer maa ngi ko ziar na mu teg ko ci loxoy Cheikh Nal Khadim baraka toog ko ci ñu bu ko àjjana baraka Cheikh Khadim noo ngi ziar tam suñu mbokk yi nga xam ne seen njaboot dafa wàññeeku xale yooyu ne la woon Novara ndeysaan ci noyaat bi yàlla na yàlla yërëm leen di ziar tam mbokk Babacar Sarr doomu mbokk soxna Fatima te démb noonu ndaje ñëpp doon ko ñaanal ci daara yàlla na yàlla yërëm leen ak mboolem néew yëpp yu nu yëg ak yu nu yëgut yàlla na yàlla dugal leen ci yërmandeem yàlla na yàlla dugal leen yaatal seen i bàmmeel wala leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mu mel ni rek euh, dañoo bëgg a andiwaat beneen thème boo xamante ni jamono daf ko laajaat muy wàllu euh, internet. émission bi ngeen di dégg rediffusion la. seen rajo bi di Xassida Online. waxtaan wi ngeen di déglu dañ koo tegaat. seen rajo bi di Xassida Online. Euh, internet. Euh, li ci nekk ci première partie bi deuxième si xale yi euh, internet li ci nekk bari na lool lool lool li ci nekk bari na li ciy jariñ bari na waaye li ciy gaañ bari na ab saako nag buñ la ko indilee jàpp naa ni da nga koy ubbi xool la say njariñ nga fas yéene ko jëriñoo la ci sa yoon niwut mën ko caa bàyyi te internet saako la bu ñu tegal mu bari nag njariñ bokk njariñ li bokk na ci li ci jiitu lii nga xam ne ci dañuy waxee nga xam ne juróom-ñetti at yàlla yu man ci aslëf juróom-ñaar ndax 2010 la ñu tàmbaloon ba léegi ci internet bi ngeen ñu suivre ñu saltandiku sëñ Modou Mbaye Thiam bi taxali fii di fële ca studio Cheikh Mountakha bi Cheikh Abdoul Bachir ci kabinago di Briance juróom-ñaareet boobaag léegi ngeen di ñu dégg di ñu bëgge te ñu ci bari xëy na mosuñu teg bët waaye di ci jariñu di ci jariñee kon loolu njariñul internet la kon benn gi ci euh, mu mu mu accorder distance yi maanaam annuler sax distance yi laay wax raw na accorder ba daf ko annulare man ngaa toog di waxtaan ci réseaux sociaux yi ak ña nga xam ne ña nga la sori lool wax sama rek li ma wane rek ñu nga nga ba États-Unis ak njaboot gi ngay jokkool moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam muy Instagram moo xam muy WhatsApp moo xam muy euh, Facebook moo xam muy Twitter Skype bu mu ci ma di doon rek support yëpp euh, wax dëgg yàlla gis nañu ne dana jàpp ndi lool lool lool jokkaloo bi waaye tamit bu ñu fàtte tamit gis nañ tam njëriñ ci wàllu jàng ci wàllu xam-xam looy wër lu nekk dem ci moto de recherche yi moo xam google la moo xam leneen ak wikipédia ak lu mën ci doon mu andi ay jàppandel yu bari yoo xamante ni nit daana taal otom dem daw kilomètres yu bari yu loola tey coono boobu ak distance bi internet maanaam supprimer na ko waaye nag en contrepartie ci beneen wàll waa bari na ay ndëgg sarax lool ndax ay ay turufa yi ne ci biir ak ndax Euh, daanaka tubaab moom lu mu la jox si doon plateau d'argent rek boo xoolee ci suuf am na lu mu ci suuf loolu itam bari na ci inconvénients yi nga xamante ne am na <coughs> am na fu ñuy dimbalee waaye am na fu ñuy yàqee ngi gis benn vidéo bu wax ne boo xam ne ni gaa yi ko xam ne soo ko da ngay am virus sa données euh, xam nga ni comme ñoom ñoo koy defar tamit ala kulli xaal ñoo nga xam ne moom mooy dëgg ñu man a xool daal saako boobu muy saako bi ñu tegal ñu internet li ñu ci mën a jëriñoo euh, euh, muy jëriñ yoo xam ne dafay jural askan bi jëriñ yoo xam ne dafay indi jàmm jëriñ yoo xam ne dafay liggéey ngir lu jëmale adduna bi kanam te si yaatal fi jàmm te yaatal njàngu mag yi yaatal islam ñu taxaw ci gën koo doy waaye lépp loo xamante ni nii lu delloo gannaaw suñuy valeur la lu lu lu yàq adduna la luy luy la lu yàq njaboot gi la rawatina tu tànk yi lu yàq mag ñi la ndax da nga gis mag ñoo xam ne ci internet bi la ñuy fanaan euh, wax ji jëmul rek ci gone yi mi ngi tam jëm ci mag ñi moom daal nañu def euh, ni boo xam ne dafay tegu ci xel la nga moom nga jël ko la nga ca jëriñ la nga ci sa yoonu néewut nga am fulla juta ne man caa maan euh, kon xam naa damay jox kàddu gi rek sama jëriñ suñ mu mel ne tam bi yaatu na waaye am na bari yuñ ci mën a Euh, mu jëm ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci ay jumtukaay bi nga xam ne dafa ànd ak jamono lool te bari lool ay gaañ gaañ waaye tam am lu bari lu mën a defar tàmbali. jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi yi auditeurs yëpp di leen fàttali ne rek yéen ngi déglu seen émission Diaspora fii ci rajo Xassida Xassida online ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Cheikh Mbacke Mbuub géwlu Xaadimu Rasuul fële ci Touba Parme moom ak sëñ Biétal ak Abdou Ba man mii Pape Demba Diam fii ci Pontedera. ci wàllu xarala bi sëñ Modou Mbaye Thiam la ci Touba Mina sëñ Cheikh mënuñoo tàmbali te jëluñu suñu njaal jébbal ko communauté sénégalaise bu bi nekk Novara ndax it euh, ni ñu ziyaare ci julli gi noonu la altine bi weesu euh, tiis bu metti dal ci seen kaw euh, fële ci Novara ndax ñëpp gis nañ image ñaari gone yu bokk benn famille kenn ki tudd sëñ Abdou Ndaw kenn ki tudd sëñ Fallu Mbow astafurlah yàlla dogal ñu ñu lab ci benn laago ndax seen bal moo wa doon ñu koy daw di ko jëli mu doon euh, euh, événement bu metti euh, loolu it mënees na ko bokk na ci actualité ndax li ñuy wax ndax te jii ku xool réseaux sociaux yi démb ak tey ay image yu metti moo ci am moom mooy euh, hommage bi nga xam ni moom laa ay moromam euh, doon def ñaari gone yooyu mu lu metti ndax waxuma njaboot gi ci seen bopp waaye image yi boo ko seetaanee ba gis xale yi émotion bi nekk ci ñoom maestra bi dem na wax ba mënatul taxaw mu toog di joy mu nekk image bu fort te image yu yu metti ñuy ànd ak euh, njaboot gi seeni waajur di leen ñaanal di wax suñu boroom euh, euh, mooy def lu ko neex te it lu mu lu mu def rek noonu la kenn du ko cog moom ne te rafet njot waaye du tax danañ ci waxtaan ndax it euh, épisode yu mel noonu bari na fi xam naa du ñàkk deuxième waxtaan bi sax dinañ ci waaye li ci gën a am solo mooy ci même semaine bi bërki démb maa ngi koy naxarlu ci benn euh, groupe bu ma bokk groupe whatsapp ñu dugal ci image bu foor image bu metti ndax benn xale boo xam ne dafa lakk Tuuba ci xale bu jigéen mm-hmm. euh, maanaam yaram bi genn wàll gi ci kaw yëpp lakk xale bi di dund mettit bu metti donte bataille la bu ñu doon def waaye eh, ñun suñu diine dafa am nu mu baaxoo. Mhm. Euh, xale bi suturaaluñ ko. dëgg la. Euh, dañ ko filmer noonu daanaka sol dara ñu wane yaram bi yëpp xale bi taxaw di juuxu. maanaam ki koy filmer mu mel ni daanaka donte image la bëgg jàllale. ndax ndax ndax man suivre na histoire bi. Mhm. xale bi dafa nekk ci def naa troisième degré la nekk brûlé. Touba amuñu euh, maanaam réparto pour optionnaat yi maanaam. Hmm. duulee métti yi. ndax hmm. ñi nga xam ni principal rek moo ko am defe naa ak euh, ak euh, de traumatologie dafa am lu leen di teg ci ay lu mel ni weñ boo am da leen di muur ak ay garza yu ñuy teg seen yaram pour mu leen di mën a di alleviare douleur bi. Hmm. ñu waral ko transférer waa waa waa waa émigré yi nag def ci liggéey bu am solo. ndax ndax ndax ndax loolu la média yi di jëriñ ndax ku mel ni euh, Mati Trois Pommes ak beneen waay bu sant Dieng ñoo xeex bataay boobu ba dégg naa ñu transféré ko ba fi ni nii sax ñu ngi koy laajal ndimbal pour mën ko taxaw te it yàlla mën na dogol sax ci immigré yi ni ñuy def ñu ñu taxaw ko ba ñu indi ko fii. Euh, ci bitim réew faj ko ndax mënees na ko ndax tey jii euh, bu bu amoon ay accord Eh, fii ak dix heures de temps wala une eh, eh, ñaari fan nga gis ko mu yegg si fii dëkk bu mu mënti yàgg mën nañ mënees na ko taxaw ba yàlla defal ko mu mu dellu si waat kon ñu ngi koy ñaanal waaye liñ ci mën a jàngat rek mooy xew-xew bi nga xam ne moo xew jamono yi mooy li ngeen di wax mu di réseaux sociaux yi ni ñu koy utiliser ndax man dama gëm ni ku mu doon sa doom tey jii donte metti na a ah, wala am na loo bëgg balaa ngay dugal image yooyu di nga ko seetaan bu baax te yu mel noonu sëñ bi def fee bari euh, image yu mel noonu dafa bari nga gis moo xam image yu yu nit yu sàggane wala image yu ñuy def pour chantage ay nit wala boog ba ci image yi nga xam ni sunu doom yi dañ koy séddoo ci seen biir te ñun duñ ci am accès loolu euh, nekk ci li ngeen wax ci réseau sociaux yi ndax réseaux sociaux yi saaku la waaye ñun ñun ñun dañu dem ba dañ ci nekk rek ay consommateur consommateur tam looy consommé consommé war nga mën a seet li ngay consommé ndax baax na ci yow wala baax na ci sa mais waaye jamono yi dafa mel ni euh, euh, euh, réseaux sociaux yi dañu conditionné di ñu jiital ba nga xam ni nekk amatuñu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy discuter entre ñun lépp ci réseaux sociaux yi la dem na ba nga xam ni daanaka da gis kër euh, papa yaay doom ñëppay am ku ci nekk yaa ngi ak sa profil euh, booy xool ci seeni page daanaka da ngay nit ñii daanaka euh, ci ci ci ci réseaux sociaux yi rek lañuy ñuy lañ nekk loolu nekk loo xam ni lu négatif la famille, ça ne se construit pas sur les réseaux sociaux te il y a des dérives yi nga xam ni dinañ ci dugg euh, bu ñu demee ba ci biir émission bi il faut que nit ñi di ci bàyyi xel euh, euh, ba nga xam ni njaboot yi dinañ leen mën a préserver ak it ñun mag ñi ndax ñu ci bari sëñ Cheikh bi ñu yëf yi def ñoo dab waaye xam ñu nuñ koy defee léeg-léeg nit yónnee na loo xam daf lay leer ni bés boo leen gisee gisantee dana dana dana dana dana dana dana sëgg ndax day nekk ci réseaux sociaux yi lu lu mu gis laal wala lu mu gis dugal ba laal loo xam ni waru ko laal yónnee la ko di la woo wax dama juum wala sama doom a def nangam fekk ne mm-hmm. Mm-hmm. ñàkk mën a xam lu ñuy manipuler ak euh, nekk ci yëf yi euh, war ci nekk benn waxtu am waxtu woo xam ni da ci war a nekk am waxtu woo xam ni Eh, maanaam daal ci gàttal lu ñu war a seetaat la suñ ceex mm-hmm. xam naa ni tey ji daal ci loolu lu ñu bëgg dugg bu ñu demee ci deuxième point bi nag ñu doog dugg ci gone yeeg réseaux sociaux yi macha am na solo am na solo Pape eh, te loolu muy wax sax muy wàllu Euh, téléphone yi ak internet day dem ba li bépp forme de communication bu war am ci famille bi daf koy rey ndax kenn ku nekk papa ji wàcce ma ko ci ordinateur moo xam sax ndeysaan moo xam a ci rajaxas doon naan di ko déglu leneen wala muy jàng tas daam wala dara waaye nag dana day rey bépp forme communication boo xam ne am na ci kër gi xale yaa nga ci seen i tablette soxna saa nga ci téléphone am lépp nga xam ne la ñu war a waxtaanee ci kër gi muy affronté problème yi fi nekk waxtaan yaru gone Euh, kon euh, loolu muy loo xam luñu war xoolaat la bu baax a baax a baax ci utilisation li nga xam ne moom mooy euh, internet via waaw sëñ Cheikh sëñ Pape mhm. kii boobu mu def noonu mu ko mu ko jàngatee noonu am na solo lool rawatina nag exemple bi mu joxe ci image boobu ñu ñu jiraare mu jógee Touba man yàlla seede na ni bi ma ko gisee damaa sax yuuxu parce mhm. que xalaatuma woon ni Sénégal la tey ba may dégg voix bi. Mhm. Euh, maa ngi koy wan suma soxna sax mais bi may dégg voix bi da koo xool rek moom it yuuxu. incha allah mais bi may dégg mhm. voix bi. Euh, ci laa soog a gëm ni lii Sénégal la jóge moom euh, ma ma def ci nag jàngat bu ndaw ñun lan moo ñuy bëgg daal. am na yoo xamante ni daawuñu amoon nañu kersa ak yéeraange di ko dugal ci ay ay réseaux sociaux. di wan ay doomu aadama nit nit ku def dungu eh, solul dara ci yaramam ak lu ko mënti dal mhm. dafa bokkul ci sunu aada pourtant sax vieux waaw doguma la wajangi wajangi kiko ngi dugal mi ngi wax sax naan ni ko ñu ngi jéggol ni ñu ko dugale waaye dañ koy wutal ndimbal waaye nag jàppoon naa war nañ ko sutural rawati na muy jigéen waaw nan ko nan ko mënon nan ko sutural rek wane lak gi ci ginnaw gi dëgg la waaw mënon nan ko sutural wane lak ndax eh, koku day doon mak Mhm. te euh, réseaux sociaux yi lu ni Facebook dafa nekk euh, propriété privée. dëgg la lu ca xës ba dugg moomatuloo ko yow. yow mi dëgg la waaw loolu wax ji ndax ak dix ans fii ak euh, ñaar fukki mhm. ñoom bu leen neexee mhm. te comme àdduna dafa dafa dafa dafa doy guerre guerre guerre guerre du virtuel la ñu bañ nañ ko ba campagne électorale yi sax ci campagne virtuelle bi lañ koy defee ku mel ni Obama euh, daanaka looloo tax mu gagné euh, gagné ay élection am waaw ci réseaux sociaux yi ci la insister baax a baax a baax Macron la même chose mm-hmm. donc mu wan la ni réseaux sociaux yi dañoo am doole boo xamante ni jamono bii euh, il faut ñu def attention bu baax a baax a baax man yàlla dogal na mës naa cee am mës naa cee am mës naa cee am cas dëgg la ak yu ni mel. mais mhm. eh, eh, dama ànd ak dal ak nit ñi dal dëfal bi ñu ma doon dëfal moo tax ma génn ci waaye bu doon sama fët fët rek xam naa ni danaa ci am lu ma gën a naqari. dëgg la waaye da ngaa nekk ak ay nit yoo xamante ni wax dëgg yàlla mënoo leen fay tax nit ñi eh, jege la di la di la yokk di la xamal ni nga war a comporté woo te ak ñamu dal. di la woo mhm. surtout di la wax naan la defal nii doxeel nii doxeel na ne looloo la ciy génnee. mais dama bëgg dellu waat tuuti rek pour wax euh, suñ mbokk sénégalais yi que ni dafa am loo xamante ni histoire dafa ñu ko jàngal ndax fii dëkk bi dañu fee nekkoon boo daan bëgg a da nga daan dem fa tayor yor nga rang di xaar sa tour ñu jox la nga woote sénégal mhm. nga dem ba at yi ngay jël di dem ci cabine yi di téléphoné mhm. ñu dem ngay chargel sa téléphone da ngay charger sa téléphone woote crédit ba dootul doy nga tëdd mhm. nga dem ba réseaux sociaux yi yombalal la ko. dootoo fay dara. dara nag léegi. léegi nag jotul ñu mën a xool. kay li jëm ci loolu kay def loolu. ndax sunu intérêt ñun lay xool. xoolul sunu intérêt de. Hmm. moom intérêt am lay xool. mais ci intérêt am dafay lijjanti tamit intérêt ki nga xamante ni dafay jaay antivirus. dëgg la parce loolu moo koy loolu. doxal géeyam parce que bu defaree lu baax dana defar safaan ba ci biir te safaan ba am na ñoo xamante ni loolu mooy seen liggéey ñoom di di di dox ci lu jëm ci lu safaanu te moom mu créer moom produit boo xamante ni day contrer loolu lu safaanu loolu loolu day doxal capital am moom la safaanu loolu nag ñun si on n'est pas préparé te ñun yàlla dogal na suñ papa wax na ko léegi euh, waxuma sax euh, réseaux sociaux yi monde virtuel bi mais ñun dëkk bi lépp daf ñoo dab dëgg la dara préparé wuñu ko malheureusement mhm. préparé wuñu xale yi ñu mag ñi préparé wuñu seen bopp euh, barki demb laa ciy wax ak benn benn sama benn grand bi ñuy bureau bi ñuy waxtaan ma ne ko grand mu ne ma ma ne ko xam nga man lan moo ma metti ci suñu communauté mhm. tey ji ma limal ko benn tour ma ne ko tey ji parma kenn dong laa fi mën a seede ni kooku kàpp tour la ca fu mu nekk te jox nañ ko cër mhm. ko mais lima ko fi keneen koo xamante ni am na yenn responsabilité ci agenda bi mu nekk mhm. te donte nag koo ci waxal mu ne la def naa fi ñaar fukki at def naa fi ñaar fukki at ak juróom maanaam ci lépp nag lu mu mënti doon rek dama joxe exemple boobu rek génn tuuti ci tem bi mais ci lu mhm. mu mënti doon rek dañ dul waajal suñu bopp ci dara te bu nu waajalul suñu bopp dana jafe na nga waajal ñu tuuti yi ah bien baal ma fofu da amna naa fi tuuti benn objection moy bokk na aussi ci li waral euh ñak ñu confier responsabilité ci sama xalat wala boog ci sama kaawu bopp moy ñàkk doylo wala mm-hmm. xeet bu ñu tubaab bi di xeet parce que déjà der bi dafa ñuul rek der bi dafa ñuul rek mm-hmm. mais mais seigne Cheikh aha seigne Cheikh nangu mo ma foofu waaw dinaa ñëw maa ngi ñew <laughs> ma ngi ñew lolou débat la dé lolou débat loolu débat euh, Pape ma ngi ñew xam nga lu ko waral seigne Cheikh Pape ma ngi ñew nous ma dund la personnellement dans ma peau Je muy liggéey depuis 18 ans. mais exception là. Oui, très bien L'exception confirme la règle. <laughs> waaw on na exception exception mais li li nous wax nii li nuy wax ah. Uh-huh. ci exception exception la règle. Mm-hmm. am na fi ay exception et cetera mais nag ay njàngat la rek yoo xamante ni war nañ koo mën di def daal ñun lan moo tax ñu toll tolluwaay wi lan moo tax over cinquante nii am problème liggéey tey yooyu yëpp ay njàngat la yoo xam ne war nañ koo mën a def ëllëg pour pour pour waxtaan ci euh, amaana sax buñ ci duggee ci tim boobu xëy na ñiy dugg danañu bari loolu daal parce que responsabilité tubaab yaa ngi ci sunu responsabilité ngi ci ak yëpp mais damay wax rek ni ñun li nu manqué mooy discipline comportement comportementale euh, li sëñ si wax ni saaku la buñ la ko joxee da ngay seet la ca gën nga jël nga ubbi xool seet la ca gën nga jël mhm. mais ñun euh, discipline alimentaire sax problème la ñuy am ñun luñ jot lekk luñ jot lekk luñ gis jël lu ñu lu xooluñu li nga xamante ni vraiment bu ñu ko gisee dinañ ko jël càmbar ko jàngat ko xool seppi ko jël la ca gën ñu jël la ca baaxul ñu teg fële internet bi euh, dafa dafa dafa du ma ni lépp bon na déedéet baax la ça dépend ci le consommateur parce que tey jii gis nga les grandes les grandes sociétés Mhm. dematuñu ay États-Unis wala New Delhi wala feneen di di di réunion et cetera leur réunion dañ koy def à à travers une vidéoconférence. Mhm. ki nekk Italie ki nekk France ki nekk New York mu mel ni ñoom ñu ngi toog di waxtaan. tey jii boo amee looy jàllale ci daayira bi confédération yi euh, euh, fédération yi du moins ah, ñoom ñëpp dëkkuñu Parma wala ñoom ñëpp dëkkuñu Pisa waaye boo ko dugalee ci WhatsApp bi. ñoom ñëpp danañ koy jariñoo danañ xam ni lii kat mel na ni ñoo ngi toog di waxtaan. waaye bu fekkee nit jël na benn benn benn euh, image boo xamante ni jotewul dara ak fédération ba ñëw dugal ko ci groupe fédération ba amaana nit dana nekk ci biir groupe boobu groupe whatsapp bi wala groupe bu mënti doon dem ba day day day day ñi sax dootul xam xàmmee lan moy information bi am am fula ak ban information bu am fayda mhm. parce que day jël rek di copier incoller de copier rek di coller di copier di coller day jël rek inoltrare sans pour autant que mom ci bopam De sax li nga vraiment nañ ko ko ndax am na jariñ wala amul mhm. de groupe yoo xamante eh, nit ñi dañuy dañuy dara ba pare ne dañoo juum joxe benn exemple Eh, kër Serigne tubaa eh, fi Touba Parma bi. Uh-huh. am nañu ñaata yoon ñaata yoon la ci nit dugg wax man mii dugg naa ci wax suñ Cheikh yow dugg nga ci wax. Uh-huh. naa di wax maam Thierno naka Kazaali. Eh, am na sax ñu dugal ñu génnee leen effacé leen complètement mais ba léegi nii yaa ngi gis nit di jël ay mbir yoo xamante ñu ngi ko ciy jël di ko ci dugal ça se voit ñun am nañu problème d'éducation ci le monde virtuel. Mhm. ma jàpp ni nag euh, dafay jot parfois ci euh, jataay yi ñu bañ a yem rek ci ah groupe bi kat bu leen ci dugalati lii groupe bi mais nga ñu former nit ñi il est temps que ñu former nit ñi ci loolu parce que le monde virtuel c'est un village village la boo xamante ni ñëpp a ngi ci ca kenn xamantewul mhm. parce que le mot leen di parce que dans monde virtuel am na ñu ciy takkante am ci ay déception am na ñu ciy takkante seen sëy di dox ba léegi. dëgg la ci ay Facebook ak ay nangam ak nangam. bon duma duma du xóotal ci xale yi euh, ci kanam danañ ci dugg. mais je veux je veux bien rek ñu ñu ñu ñu commencer surtout ci euh, éducation bi discipline bi comportement bi euh, nit ñi nañu nañu def attention ci monde virtuel yi. temps plus que nag dafa am yeneen yoo xamante ni jamono. bi xam nga bu fekkonte ni kiy defar internet bi euh, ak yooyu li baax kese kese kese la ciy def kon du ci dugal ay jeu ak ay yeneen yoo xamante nii dafay dafay indi safaan parce que am na ay jeu temps yu xew yoo xamante nii ñu koy wax ay blue whale euh, mooy baleine blue ah mm-hmm. yoo xamante ni da da nga ciy joué mu lay wax ay daggal sa yaram ak ay ay ay xarul ak ay ay ay ay tëbal fii ay defal nii

Eh, c'est un problème te lolou kan mo la koy jox yaw la ci sa bop nga xam xam ni li dafa am lu mu laaj li dafa am li ci bax ak li ci bon li ci bax moy bu fekke man xalé la damay jang damay set di ci taataan li nga xamanteni mo moo ñoral pour suma jang jeexna ya un temps bo xamante mo ci wara a nga dédicaré ko ci xol say ami ci jeexna mu yam foofu nga tiateraare ak ñom waxtaan ak ñom mu fofu euh nga utiliser ko comme un dictionnaire parce que Euh, tey jii internet dem na ba même yow bo feebaree encyclopédie bo fa duggé nga décrire ko sa feebar sax mu génneel la garab mhm. kon internet du du lu bon man ñi nga ni ne ñuy wax ni internet dafa bon il faut leur interroger lan lañ ciy def ñoom té ñun malheureusement nous une communauté bo xamante ni euh, bo ci laajee ñu ci bari ñi yor nek ci internet bi etc. cetera lan ngay def ci internet bi daf lay wax Facebook bi la ci soxla whatsapp bi ak di ci woo njaboot gi Sénégal. Mhm. et basta. Mhm. basta amul benn affaire boo xamante ni dafa lié ak sa liggéey. Mhm. amul. ay nit jàng nañ ci ba am ci ay diplôme. ay nit jàng nañ ci ba am ci ay diplôme macha allah di leen mu mu jariñ leen donc. ñun ñi koy utiliser nag suñu classe gi nga xamante ni pour woote Sénégal donc lañ koy doyee ak woo maam Samba wala ma Demba parce que bëgguñu changer crédit ak nangam ak nangam. faut que ñu éviter les vidéos Euh, yenn message yi ak yenn affaire yoo xamante ni dañ koy jël di ko télécharger di ko dugal ci ay internet ak naam loolu moo ñuy indi tooxi doona parce que touche yi boo ko xamul touche bi ngay laal lan lay jariñ mhm. boo ko liiree yow nga koy gis nii mais nga gis euh, icône bi nii rek te xamuloo lan lay jariñ c'est un problème absolument waaw donc il va falloir euh, benn benn éducation de base boo xamante ni Euh, dafay jàngal nit ñi touche bi boo ko laalee lan lay jariñ wala touche bi boo ko ci dugalee lii fan la jëm ak fu mu dul dem li may wax sànq rek loo ci mënti dugal moomatuloo ko loo ci mënti dugal propriété privée la ka moom yëf moom moo ko moom ki créé Facebook am moom loolu moom moom photo ba moom moom moom la ca mënatoo koo jël mënatoo ko dindi boo ko dindee tamit Cheikh mën na koo gis léegi léegi nii euh, sauver ko denc ko ci mémoire am te bu boobaa heure bu ko neex mën na la koo génneel dëgg la moomatoo ko moom tey li nga wax rek loo ci dugal moomatoo ko. commencer le chantage parce que chantage yi foofu lay commencer tay ji bo amé ben vidéo ñu duggal ko après yow nga nga cancellare ko ça va pas dire que vidéo ba deñ na Cheikh mën na koo denc ko bu suba ngeen jappanté wala mu am lu mu la laaj nga bañ mu chantage la. Mhm. donc internet bi lolu moy internet bi maintenant il faudrait que ñu ñu éduquer ci aussi euh, en premier lieu mag ñi. man damay wax en premier lieu mag ñi parce que xalé yi dañuy jàng école lañu nekk mënuñu ci mënuñu takaliko ak moom da nga leen di xamal rek li nga xamante ni mooy effet néfaste yi mhm. te ñoom je pense xale yi ñoom ñooñu ko gën a xam effet néfaste yi ci nekk ñoom ñooñu ko gën xam parce que euh, dama doon lire ci internet bi di gëstu gis ay yeneen affaire yoo xamante ni xam naa après ci biir émission bi dinaa d'ina ci dina dina ci xóotal mu surtout mu dal ci suñu communauté ñun muy communauté sénégalaise mu doon mbir moo xamante nii fii Milan gi la nekk et puis on me dit que y a des vidéos même y a des vidéos am na ay nit yoo xamante ni les gens les reconnaissent donc vidéo yooyu da lay leer ni ñàkk a def euh, bañ leen di wane ci vidéo yi ñoom ils se sont même pas rendu compte que ni ñoom ñu ci vidéo yooyu te loolu internet moom moom moo ko siiwal te il paraît loolu yàgg na fii ci réew mi mooy suñ mbokk sénégale yi nga xamante ni dañuy jaay seen i seen i mën néew noonu laa ko mën a tuddee ci ci ci ci ci ci ndax euh, pour pour pour ci jox cër ni ñuy déglu euh, yooyu yëpp mi ngi ci internet bi te Milan gii la ñu nekk donc mu doon ay mbir yu doy waar yoo xamante nii vraiment da ngay dem ba da nga naan sax euh, ñun fan parce que même je me rappelle fan yële ci ginnaaw bi ñu commencé caricaturer le président Macky Sall euh, ci la commencé aussi di régulariser yenn messages yi WhatsApp etc. au niveau du Sénégal euh, mais le problème c'est foofu nga mën a euh, régulariser le sénégalais lambda bi dans le monde entier Nous avons créer son site internet di jokkoo ak waa Sénégal di di di dugal lu ko neex di wax lu ko maintenant il faut nga une éducation de base parce que même au niveau du Sénégal tay ku mën ti jël sénégalais bu ti jël nga téléphone am nga whatsapp am te xam na ni jangul mën ko utiliser euh, et puis il faut que gars yi nga xamante ni dañuy euh, li ñuy wax naan ay jangul mu leen di déranger il faut qu'ils acceptent c'est la réalité parce que bo jangul mën nga def yenn yi mën nga dugg ci lo xamul mën nga laal euh, lo xamanteni publier ko te doo ko xam te bo amul éducation de base bi comme eh, meun na la baña dal tamita parce qu'il n'est pas dit que bo jangul rek lepp yow ya lay dal euh ki jang sax meun na dal bu amul éducation de base bi mais je je je demande à ce que dal vraiment communauté bi nañu def attention ci internet bi contrôle yi nak bari na parce que il faut que sénégalais xam e ni y a la police postale mhm. dëkk bi ñu nek dafa am la police postale amna fi ay sénégalais quelques e, sénégalais e, yo xamanteni am nañu sax ñu ngi leen téye par rapport ak affaire yi ñuy def ci internet bi te actuellement ñu ngi leen ñu ngi nekk euh, ininda june ñu ngi leen di enquête ak yu demee noonu ci ay sénégalais donc il faut que ñu def attention ci ci affaire yi pour le moment daal loolu laa ci loolu laa ci mën a mën a sànni en attendant it euh, di xaar euh, vraiment auditeurs yi dugg ñuy dugg ci xóotal bi tamit ba dugg ci ci ci xale yi tamit nañu koy nañu koy utiliser ñoom it waaw jërëjëf Vieux jërëjëf mbokk yi ma fàttali yéen a ngi déglu rajo Xassida online Touba Monde bi kaddu gi di bàyyi ko ci studio Cheikh Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ci Touba Café Nago di Brillance ci wàllu waxukaay ji seen mbokk taal bi géewlu Xaadima Moustapha ànd ak Pape Demba Dia ak Vieux Tall euh, sëñ Modou mën bu ko defee bokk taal bi xëy na ñoo xam ne ñu ngi taaxeerlu bëgg ànd ak ñun ci liggéey bi kon ñu bu ko defee ñu may la rek ñu dugg euh, kon sëñ Modou Mbaye Thiam mën ngaa ubbi ligne bi bu ko defee euh, ñu mbokk yi yi nga xam ne am na ñu xalaat ci thème bi ndax thème bi am solo bu mu am solo moo tax ñu dellu si ko ndax waxtaan nañu ko fi ay yoon waaye nag euh, loolu kon dañuy wax ne li yoon jeexul waaxu sil di jeex te ñun askan wi rek moo ñu ñor bu ngeen fàttalikoo émission bi passé maa ngi duggun ci wàllu kilifa diine ak politique muy émission bu am solo sëñ Abdoulaye def ci fan jàngat yu am solo euh, kon lu ñor askan wi rek ñor nañu la kon euh, sëñ Modou mën ngaa ubbi ligne bi bu ko defee bokk yi nga xam ne bëgg nañoo tàbbi ci waxtaan wi ñu déglu seen i xalaat kon ma delluwaat kàddu gi sama magum daal Pape Dem Pape bisimilah. waaw sëñ Cheikh euh, xam nga boo xoolee jamono yi euh, société bi li muy dund sax. Mhm. ñun daf ñu waroon permettre ñu gën a fagaru mais li ñuy wax rek yëf fi def ñu jëme kanam ba nga xam ni daf ñoo raw ba nga xam ni daanaka ëpp ñu doole parce que boo xoolee jamono yi rek euh, xew-xew yi xew ca wàllu àdduna monde terrorisme yi maa ngi ko doon wax di wax gars yi nañ leen di éviter. maanaam lu ñu gis léeg sax dangay gis benn euh, vidéo bu simple nga oh. nga cliquer ko regarder ko rek service secret yi fii euh, intéressé wu ci yow parce que dafa am target boo xam ni boo ci oh. duggee rek dañ lay dañ lay bàyyi xel moo xam moo xam ay ay ay ay vidéo yoo xam ni dafa jëm ci wàllu terrorisme wala oh. boog ay ay vidéo yoo xam ni da ngay gis nit ñoo xam ni dañuy def ay prêche yoo xam ni prêche yi dafa violent mhm. maanaam ñi salafis yi ñi nga xam ni dañuy wax ay wax yu dëgër euh, euh, léegi mën naa ni boo xoolee ñun sénégalais yi kenn amatu ci téléphone bu baax ndax whatsapp dëgg la dangay toog whatsapp bi tin tin tin nit ñi dañuy dañuy dañuy euh, dañuy condividere ay image ay photo montage yoo xam ni mais damay dem ba wax sax ni ñun est-ce que ay jullit lañ ndax boo gisee benn fa ñu ne la kii boo ko boo ko considéré sa aajo faju <laughs> xoolal di nga gis cinq cent personnes dinañ la ko yónnee dëgg la mais mais loolu sëñ bi dafa dafa matawaat waa mais man damay des fois da su ma mënoon di bloqué nit ñi dama leen di bloqué waaw man je bloque man Pape foofu moom du ma ci supporté même damay bloqué. su fekkee am ne vraiment nañ ma baal. man damay gis ay numéro ay numéro man commencé naa bloqué commencé naa bloqué man damay am ay numéro yoo xam ni duma ma du ma leen sax salvaré sama mémoire. dañ may envoyé ay vidéo waaw. numéro simple numéro boo xamul. mais mënoo ko bloqué parce que xaw ma ko. Mhm. Euh, nga gis maanaam ay une heure du matin. Mhm. tey jii téléphone yi boko ko deful vibracol message yi messagerie bi day day dem rek manam c'est lolu euh, du du ñun rek ni mi ñëwee parce que bo leen xolé njabot gi communauté bi même chose la li li ñëw ci ñun moy ñëw ci ci ci gonay parce que image yi day wër rek dëgg la xolal image bu troublant bobu euh, manam amna euh, ben soxna

administrative yoo xam ni dafay laal biir daayira bi mais boo xoolee daanaka euh, ay ay xutba lañ la ci dugalal c'est-à-dire waxuma ni yooyu baaxul mais yooyu dafa am beneen leneen lu ko tax a jóg dëgg la groupe ñuy def pour liggéey pour di informer li ko tax a jóg mais moo tax ñu bari dañ ciy génn parce que da dem ba da ngay wax ni est-ce lii am na njëriñ mais Pape nit ñi dañoo dëgër bopp ñi dañoo dëgër bopp nit ñi dañoo te tey ji kooku wax mu mu bëgg la wax ni la maa la gën a bëgg sëñ beeg mais mais mais sëñ bi am na place buñ ko war a waxtaanee. Mhm. nit ki bu fekkee da nga ko bëgg a yónnee da ko bëgg a baaxee ay mbir. mais envoyé ko comme message privé. Mhm. mais mais mais mais sëñ bi ay ay ay wax yoo xam ni noonu noonu la ñuy def ba di def ay erreur ndax tey jii da ngay gis ki dàq dugal image moo dàq juum. léeg-léeg mu dugal bagage yoo xam ni. c' est des mhm. bagages privés. léeg-léeg nga gis bu dee góor la mu dugal photo soxnaam. bu sàggane ndax ah, maanaam maanaam internet bi li ma wax rek ñu ñëpp da dañ cee dañ ci def ñoo dab xamuñ ñu mm-hmm. nuñ koy manipuler gis nga inoltra ku ko bàyyiwul mm-hmm. inoltra <laughs> inoltra rek ku ko bàyyiwul doo dug doo jóg ci musiba dëgg ah, léeg-léeg nga gis nit dugal photo yu sàggane jékki-jékki envoyé benn benn son maa ngi jéggulu sama doom wala nangam ak nangam Ah, maanaam fekk li ñuy wax rek aggrappare si fekki parce que ah, jox ah, kolpa xale kenn amul kolpa yow yaa yor responsabilité bi parce que maanaam dafa am loo xam ni daf ñu daf ñu dañ ko moomul dañ moomul te it loolu dañ ci war a dañ ci war a gis ngeen Sénégal fi mu ne nii am na am na ñu fa teg loxo te lan lan moo ko waral ci seen groupe lañ dugal image benn montage yu président de la république article article benn article d'able ñoom ñëpp lañ jàpp Mhm. Mhm. te te dégg naa ki def image bi sax Europe la nekk nekkul nekkul Sénégal. nekkul sax Sénégal waaw. waaw loolu loolu loolu war nañu war nañu war nañu. Euh, war nañu meer ñu xalaat. xool bu baax nag la ñuy utiliser technologie ndax ndax ndax waxuñu ne baaxul dafa baax ndax àdduna dafa soppeeku dafa dox bu njëkk ba jamonoy kurus gi da nga daan woote sa kër woo leen alxamis ni leen àjjuma ci midi dinaa leen woo mhm. ajjuma midi dañuy toog ci téléphone bi di xaar. Mhm. boo wootee da ngay wax sa soxla bu dee kurus gi bu dee bu dee téléphone yi ñu takk daanaka doo ñeme wax wa doo ñeme wax lu ëpp dix minutes. boo mhm. paree coupé tam balaa nga leen jotaat quinze jours wala un mois. Mhm. boo bindee boo bindee lettre lettre bi dana def un mois et quelque. léegi ñu dem def ay technologie yoo xam ni daf ñu yombal suñu dund. warul tax nag ñu saax saaxee sunu dund. yombal dund ak saaxee sax saaxee sa àdduna bokkul ndax da ngay gis ay nit yoo xam ni euh, ni mu amee ci ci ci ci ci ci whatsapp bi noonu la amee ci facebook bi sëñ bi da ngay gis ay ay ay nit yoo xam ni dangay wax ñii est ce que dinañ ko xalaat da ngay gis ku toog ak soxnaam ci kaw digg lalam sëñ bi ko ci ci def ko ci profilu Facebook am waa sëñ bi bu fekkee jardin secret am na yow sa soxna nga xam ni loo xam ni yéen ñaar rekk ko war a mais néeg biir néegu jàmbur kenn waru xam lu fa xew sëñ yéen ñaar ngeen tëdd ci seen kaw la longoo ngeen photo ko publier ci Facebook ay milliards de personnes di ko gis sëñ Cheikh est-ce que nit ñi ñu ngi rendre compte ci loolu <laughs> nit war a xalaat ni man ëllëg bëgg naa doon kilifa wala book maa ngi ñaan màgget sereinement ñu kenn ci ngir gis surtout jigen ñi soxna yo xamni ni bi dañuy dañuy sol sol ay yiri yo xamni ni bi sagane sen bop lool nek ci facebook bi photo bu ñu condividéré 5 minutes après ñu dugalaat benen photo bu ko gëna bu ko gëna metti mmh. yow ngay tok di wax ñi est ce que xalaat nañ suba seeni dom doom bu ñu toogee jàkkaarloog photo bi wala ñu am 50 ans wala 60 ans seeni dom doom doon ay muskalaf lan la ñu war a wax mmh. te photo boobu du dañ déedéet on se leurre pas boo ko dindee parce que tey jii boo ma ko boo ma ko boo ma ko cliqué ba ma boo ma ko taggaaree ba ma bés piaché mi ngi ci man mënatul dañ mais loolu nag dafay jaadu léeg-léeg ñu xoolaat jàngaat bu baax xam ñun ñun ñun ñun ñun ak tubaab bi bokkuñ ndax tubaab da ngay gis ko def ci profilam mais de bain ndax loolu mooy seen cosaan loolu mooy seen aada du problème. ba set. wanewu parce que ñoom loolu la ñuy dund mais ñun dañu am ay réalité am am li ñuy wax des valeurs valeurs yooyu nag il faut ñu savoir nan naka la ñuy def sëñ Cheikh ba préserver macha allah mm-hmm. euh, dëgg la dëgg la sëñ euh, Pape euh, muy taxawaay bu am solo ni nga ko waxee loolu dafa doon loo xamante ne nii gis bu nekk ñu gis ko kon nag danga jaaru nit ñi ñu bàyyi xel loolu tamit buñ ko waxee bi euh, wax na ko léegi buñ ko waxee mooy ñàkk xam gi ñàkk xam gi tamit ci ñàkk jàng la nañ ko wax du question dañuy exclure ñi nga xam ne jànguñu waaye loo xamul xamoo ko mënul hmm. tari loo jàngul su fekkee yàlla dogal na yow nga am ordinateur am connexion internet wala nga am euh, télévi euh, télévision ndax xam ngeen internet bi sax lay mi ngi ci télévision yi léegi télévision bi comme ni ngay jàppe ci tablette bi di ko jàppe ci téléphone bi di ko jàppe ordinateur nga bi ci ci bi muy smart tv yi donc li ci jaadu mooy nit kii fexe ba xam nan lañ koy utiliser ak lan la soxla parce que dañ laa jox dañ laa jox xoolal li la joxew noo ko mën a jëfandikoo lu la mën a jëriñ euh, euh, jëfandikoo nag maanaam mooy mooy mooy dox su fekkee dafa jiitu xam nit kii dox cay erreur rek lay dox kon alakuli xaal nit ki gis naa. Mhm. naa laaj man xaw mu luy Facebook gis naa rek ñu am ubbi profil mais mën naa laaj.

lan lañ ci war a def loo xam waruñu koy def mais comme ni ko Pape waxee mais da gis ñoo xam dañuy dem seen chambre à coucher te dégg seen soxna photo ko loolu du suñu diine du suñu aada loolu tubaab bi ñoo ko tubaab dafay ànd ak doomam di sangu hmm. ñun loolu duñ xalaatuñ ko war nag sax hmm. boo ci dugg nag sa doom waxuma laa la gisuñu ko di sangu wala ngay def leneen kon lu ñu moomut moomuñu ko xay na euh, lii xam-xam la yoo xam ne mi ngi tukkee ci tubaab yi ñu di ko jëfandikoo ba yàlla defal leen ci la ñu bëgg ndax boo jay leen ca ndax Mark Zuckerberg bi nga xam ne moom moo hmm. créé Facebook bokk na ci ñu ëpp alal ci adduna bi na la leer ni saa yoo cliqué duggal ci Facebook rek jox nga ko dara saa yoo hmm. cliqué dugg ci ubbi sa page rek am nga hmm. euh, sport loo jox Mark Zuckerberg ak ñi nga àndal mais mais mais Cheikh Cheikh maa ngi jégalu am na nit ñoo xam ni tam problème

Mhm. maanaam mhm. piache bi moo leen neex. li li bës bi li gars yi wax bës bi loolu nag moo leen di def loo musiba léegi la nga gis. bi mooy musiba bi jigéen ñi yi lu ci bari dañuy def ay ay toxi doonu yu bari seen Cheikh ci Facebook bi loo xam ni euh, kenn mënu koo nettali. dëgg la dëgg la. te gis nga sëñ Pape. ma ma ma ma dolli. ana jaay euh, koor bi jeex na. Eh, ñu sant fay gaa yi dinañ dugg de gaa ah? ah, yi dinañ dugg de mais gaa yi vraiment ah gaa ñi de nañ ko damay wax rek euh, suñ mbokk yi ñuy déglu nga xam ne ñu ci bari dañuy bëgg di teewlu euh, bu doon suñ sago it euh, wax dëgg yàlla ñu dugg bokk ak ñun waxtaan wi ndax loolu mooy gën a neexal neexal waxtaan wi daal mm-hmm. man personnellement man dama dama dama yag wax ni man kuma wo ci whatsapp duma la wuyu parce que ah, gis nga nit da ngay wax li nga waaw man yalla seede na ni boo ma boo parme gi wala nga nekk euh, pontedera wala nga nek euh, venetia foo nek nga whatsapp wala messenger no duma la falé dama koy dag duma xaar sax mu sone ba ki ndax daf may sonal dama koy dag parce que ñun dañu bëgg lu yomb parce que bu la woowee whatsapp daf lay leer ni da koy leer ni moom fayul yow yaa ngi nekk ci liggéey wala amaana nit a ngi nekk ci bureau bi wala yaa ngi nekk assemblée te la ngay wax ak moom bëgguloo sa déontologie mayu la pour que la ngay wax ak moom ci toog ci sa kanam dégg li ngay wax ak moom en général sénégalais rek moo lay wool ci loolu naar musuma woo whatsapp tubaab musuma woo whatsapp ñàkk musuma woo whatsapp mais sénégalais rek moo lay woo whatsapp wala du du da nga da nga reuy wala ki dedet parce que ka nek Angleterre ñi nek Angleterre wala amerique ma lay jox exemple Ousmane Baro ma nga Amérique danaa tuddu turam sama grand la ñeme naa ko. Mhm. day nek amerique daf may wo ci WhatsApp bi dama koy wuyu parce que amerique la nek munuma wo ci téléphone euh, bu mo waxe ak moom rapidement limay wax ak mom te soxla la may wax rapidement raccrocher mhm. mais modou bu la wo ci WhatsApp bi. déjà moom gis na commodité bi ak gi mu day jël je préfère ne pas répondre ci ay monde social yi may téléphone tontu bind mhm. téléphone normal boo ma jotul it ma man dinaa la ndax sama téléphone du ko fay day heures sur 24. Mhm. donc il faut que gars aussi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy accepter di di bañ lu yomb parce que euh, ni ko olof di waxee rek euh, bu bu bu xaw ma fo euh, bu yombee torop torop torop tamit vraiment baaxul ñu ngi wax tubaab yi léegi nii mais gis nga lii daal ñun suñu mbokk africains yi sax laay wax en général particulièrement sénégalais yi ci monde virtuel bii nii mais du dal tubaab yi de non du leen dal ñoom tubaab yi gis nga ay ay group whatsapp yi nii xam nga yéen group whatsapp lan bokk group whatsapp calcetto bi rek la ñu bokk mais ah. daf Cheikh bokk na groupe euh, daayira ma euh, waa kër sëñ Cheikh euh, Cheikh Mbacke bokk na group Touba Parma Cheikh Cheikh Mbacke ñaata groupe la bokk vie kazalika Pape ba ñaata groupe la bokk association ba nangam ak nangam groupe nangam ak ñun ñun ñun ñoo bëri ay groupe yu ñu bokk ba noppi groupe yooyu ñëkk a formé ña ca nekk ñëpp maase wu nu xam utilisation wu instrument bi mais daf lay leer ni tubaab yi groupe yi ñu nekk ñoom seen groupe école yi information wu école dong moo cay dem am naa groupe whatsapp boo xamante ni ak ay tubaab laa ko bokkal fii sëñ sëñ Fallou fi muy fubali ji seen scola calcio bi mësuma cee gis benn information bu dul lu jëm ci calcio mësuma ko gis xanaa fii ne àndoo nga dégg ñu naan aw guuri aw guuri aw guuri fa lay vieux vieux waaw nga baal ma xam nga doguma la yaa aussi am na loo xam ne ñun dañu koy fàtte ci suñu waxtaan mooy

bu ko defee bu eh, bu ci jàngee bu ñu jàngut waxee ñu ne gis nga de jàngkati euh, tubaab bi dañuy wan ni ñoom dañoo jàng xamuñu dara bu jàngkati tubaab bàyyi wax ñu bàyyi soxla xamuñu dara dañoo war a xam ne yàlla dafa noon natoo société boo xamante ni nii hmm. jàngu ñu bari jàngu waxuñu ko ngir kenn waaye loo xamut munoo koo xam bu fekkee yow yàlla dafa dogal wàllu euh, mbindum càmmoñ xamoo ci lu bari wàllu mbindum ndajoor xamoo ci parce que am na nag ñoo xam ne jànguñu dara jànguñu tubaab jànguñu alxuraan jànguñu arab jànguñu dara am na de. Mhm. kooku nag bu fekkee ne xëy am ab ab tablette am. Mhm. Euh, wala ordinateur am ci ay application mais la muy def ba des fois xool message yi ñi koy bind da ngay leen ñii jànguñu. dëgg dëgg wala tur bi sax wala seen turu bopp sax ñooy nga xam li jànguñu waaye nag waxuma ko ngir contre kenn ku jàngut mais ñun yàlla na too ñun Sénégal dañoo bari ñu jàngut. Mhm. bu ma waxee ñu jàngut mooy. kii mën naa jàng alxuraan kii mën naa jàng français kii mën naa waaye lu ci mën def àlakulaan ni ci bu jàngee rek jàpp naa ne lu mu mën di jàng dana am benn ubbiku bi ci àdduna en général erreur yi ci gën a flagrant mais exception confirme toujours la règle erreur yi ci gën a flagrant lu ci ëpp ñu jàng ñoo koy def dëgg la gis nga sëñ Cheikh euh, damay dama lay jox rek euh, benn misaal maanaam gis nga sénégalais yi am Twitter ak LinkedIn leen di wàññi très <laughs> bien. non parce que arrangez vous leen parce que d'où instrument parce que ay ay ay ay ay link le New York xamante de dafay dem uniquement euh, pour liguer. Wow, pour liguer la à communication bu gaaw. dëgg la mais euh, adéquatul ak sunu nous ay exigence ñun sénégalais yi. Mhm. sénégalais yi ci am Twitter ak LinkedIn. mooy ñi nekk euh, di liggéey nii ak les moo tax gars yi bu ñu bañ jàng mi ak ñàkk njàng mi. allo dëgg am na xamante ni jànguñu alxuraan wi xëy na euh, école la ñu jàng ña ne fee ñoo nekkal ñenn ñi fii rek kenn ku ci nekk am na lu la yàlla euh, jagleel. man wax naa ko ci taay nit bañ ko ne ma loolu amul ndax ñi jàngut ñoom ñoo yor ñi jàng ma ne ko ba tey noo ko gisee rek noo ko déggee baax na. waaw xam nga limite la. pa bi ci ah, su jàngul il faut mu limité mais c'est normal ni ki ci jangul mo xam lu jang bu ma la jàngul nag du ko jang tubab rek waxna ko legi xam-xam mom euh, jangal dara mais bu jàngut il faut mu feeñ ci sa jëmm il faut mu feeñ ci sa jëfrante ak nit ñi il faut mu feeñ ci sa comportement parce que manam ñàkk jang ci bopam mo baaxul ci doomu adam ala ko yàlla taw mu ci jëlal ki jangul rek jëlal ki jangul nga jox ko profil ne ko ubil sa profil facebook nga xol mais xamul fu muy jaar xamul ban prime passo lay def xamul nangam ak nangam ak nangam

donc loolu nekkutul page parce que page bu ci nit euh, dara bu nit publier dara ci page am personnellement warul page page lay regarder euh, information wu li nit ñi di ci fa di fa di rek war a nit ñi def Facebook ñi nga ni dañuy mi piace yu bari comme li yow nga dem def mipiace te xamuloo mipiace boobu la fan la la mën a àggale dëgg la parce que mipiace boo def sa xarit boo mënti am ci sa profil da koy gis euh, euh, vier doguma la mas naa am sama benn euh, mbokk sama rakk la ci man dama gis mu masa mu jël profilu Facebook am photo profil bi mu def ci benn Laden ma ne ko waaw yow li nga def Ben Laden bi nga def ci sa mu ne ma dama ko gis rek mu neex ma ma ne ko est-ce que xam nga ne man laa indi jafe-jafe ndax yow koo xam ne ñu ngi koy wër mu doon ah. euh, ñu euh, àdduna bépp teg ko bët moom suñu mbokku jullit waaye mi nga am àdduna bépp teg ko bët nga jël sa profil ak ni nga xam ne noonu la affaire wàllu jihadisme bi demee ma ne ko yow mën ngaa xëy suba suba teel ñu xëy waa digos ñëw taxaw sa buntu kër gene la mm-hmm. donc il faut ni ko Pape doon waxee nga xool loo xamante ni lu la man a jariñ la wala loo xamul nga mm-hmm. waaye mm-hmm. rek rek boo ko mënta laaj nga am maando wàcc ko ca saaku ba mu tes fa ca am soxla jël ko lu ci bëri ñoo koy yóbbee suñu bopp kenn yóbbuñ ko xanaa gars yi eh, Modou Mbaye fëggal gars yi waaye eh, ñu ñu waxtaan ndax nag eh, temps baa ngi dem te dégguma kenn nag. koor bi jeex na gars yi ñu wax fi mu la xewlu Pape Demba. <laughs> xam nga xam nga sànq maa ngi lay wax ne la am na ay phénomènes yu bees yu ci am ci ci internet bi jamono bii mooy jeu yooyu ñuy def. Mhm. xale yi tey dañuy dugg ci ay YouTube dañuy dugg ci lu nekk. parce que ñu ngi ak seeni téléphone téléphone yi ay smartphone lañu euh, te foo leen fekk dañuy am internet parce que tey opérateur yi dem nañu ba léegi euh, boo jëndee puce sax euh, il faut que ñu nga nga nga nga mu nga am yow internet par force quoi parce que puce bi nekkatul puce yu njëkk yooyu nga xam ni crédit rek moom moo ciy nekk et basta il faut que ñu jox la waaw doguma gis nga sénégal boo fa demee mhm. constat bi ñu ngi def nit ñi dootu ñu la wax même passe wala may ma nangam dañ lay wax may ma ma jënd crédit. ma jënd crédit. continuer bis. waaw <laughs> rafet na rafet na maanaam gis nga. Euh, jënd kii jënd crédit rek léegi nii amatul parce que boo jëndee crédit automatiquement yow sa internet day day activé wu day <laughs> day ñëw automatiquement donc dina jafe pour que xale bi nga xamante ni euh, crédit am jeex na. pour que euh, muy meuna a ak yow dila bind la papa maa ngi maa ngi ci kaar beeg nangam ak nangam ak bu amul crédit du ko man donc il faut nga koy charger tamit téléphone mais su luma la charger charger sa téléphone euh, c'est mon devoir man aussi en tant que sa parent parfois ma jël téléphone bi xol li nga ci def donte bu fekkente ni xalé yi dañuy def li ñuy def ba pare cancelaare ko wala ñu effacer ko mais amna ay contrôle yo xamanteni mën nga ko ci def parce que puce bi yow boko jëlé mën nga jël puce bi collégaare télé euh, téléphone bi ci sa internet ci sa computer mën nga dugg foo xamante ni xale bi xamul sax yow fii mën nga fay dugg donc yooyu ay secret la mais bu fekkente ni euh, wax ji ñuy wax sànq rek bu fekkente ni yow jàngoo naka ngay mën a lijjantee loolu parce que nag am na fi ay parents yoo xamante ni nañ ma jéggal nañ ma jéggal maa ngi jéggalu bu baax nag parents yoo xamante ni seen xelu doom fi mu àgg ñoom àgguñu fa seen xel doom fi mu àgg ci ci réseaux sociaux yi ci utilisation wu internet beeg téléphone bi dañ koy utiliser dañu ko bañ ba ñoom bu ñuy am dara lu ñuy laajte seen doom la ñuy jox téléphone bi ne ko eh yow seetal ma lii yow. donc ki nga xamante ni tanewuloo ko ci loolu xam nga dana jafe pour nga mën koo orienter te loolu daatoo di fàttu la te loolu dafa bari ci sunu communauté. le même discours dañ koy faral di wax sax ci. jeunes yi nga xamante ni dañuy am euh, compétit te mënuñu xamuñu ku leen di jàppale ci compétit yi parce que peut-être euh, parent bi mënu yaay ji mënu leen jàppale papa ji mënu leen jàppale ils sont obligés ñuy dem di fay ay doppo scolaire et cetera parce que euh, réalité sociale bi moom moo doxee noonu parce que parent bi li sëñ Cheikh di wax sànq majeure partie communauté sénégalaise bi ñu bari ay ay maa ngi jégalu ay ay illettré lañu Eh, say jang mi demeewut wut nonu na lenen lañu jang jàng mais jànguñu lolu xalé bi jang dana jafe pour ñu mëna orienter seen dom ci lolu absolument tout à fait waaw donc bu fekkente ni nak dem nga ba yow am nga jafe-jafe boobu bul am le complexe parce que bu boba complexe mën na la dab complexe mën na la dab pour nga ni sa dom e eh, yow téléphone bi ni wala na wala na leen mais bul am le complexe ah. xam nga sax fi ne li ci gën a yéeme mooy yow sa téléphone mën nga koo jox sa doom Pape Dem mën naa jël benn téléphone jox ko doomam ndax moom xëy na miinu ko doom ji xam ne mën na ko naskonte rek nga xam ne du feeñ boo talee plateforme téléphone bi application bu la ci neex mën nga koo nëbb da nga koy nëbb mën nga ko nëbb xam nga loolu moom mën ngaa sa yow mën ngaa moom sa téléphone yor ko cinq ans doo xam li ci nekk parce que sa doom oh. di nga ko dox mu gën la ko xam gën la ko miin installé ci installé ci bagage yi boppam nëbb ko ci spermateur initial bi ba nga xam ne doo ko gis bu baax na mu koy xamee mooy parce que daf koo jàng xam ko dafa jàng am lu mu xam loo xam ne yow mi bàyyam. yow mi bàyyam xamoo ko xam àggoo ca. te te te suñu Cheikh jamono boobu la ñu toll xale yi li ñu xam ci téléphone yi parce que ñoom ñoo ëpp jot di toog ci téléphone yi temps bi ñu am. muy seen jamono tamit nag. ñu waaw. temps bi xalé yi am pour nekk ci téléphone bi yow amoko man mi awmako lañ cey def ak jot bobu ñu ci am yow amoko man mi awmako kon li ngay def rek moy yenn saay nga ni coppet téléphone bi bo amé computer nga jël puce bi duggal ci téléphone bi collégaré ko ak computer bi bo duggé ci computer bi mom mën nga xol lepp lu nekk ci biir téléphone bi fofu mom dara du la fa jaxal mais nak day fekk nga nekk à mesure nga man ko très bien voilà mais boko xamul jafé jafé la pour yow nga contrôler sa dom doo ko contrôler parce que doo xam lan la xale bi di liir ak lu mu dul liir ak fu muy dugg ak fu mu dul dugg parce que internet bi tey gis nga euh, jeu boobu ma lay wax jeu bu bon boobu euh, balee na bulu xaw ma nangam ak nangam am na yeneen am na yeneen jeu yoo xamante nii da ngay tàmbali mu ne la yow ku baax nga nangam ak nangam euh, pour nga wan ma ni ku baax nga xale bu am avenir nga daggal tuuti ci sa yaram ma xool nga jël lañ set ne coppet ci sa yaram mu lay poser ay question la defal li nga def ko la busuba 2 du matin busuba nga ou 2h du matin mu la yow ku ku ku ku am yermane nga ku am avenir nga demal nga nga teddi busuba dem bay bi euh, question bi cinquante mmh. question mmh. dem bay question bi ne la nga tu dois être prêt nga joxe sa sa sa dund doo parce que le martyr ne meurt jamais mmh. loolu la la nee na damaa bëgg nga tëb fu sori nga daanu ci bu ko defee yow nga jéem loolu nga tëb mu ne la bàyyil bu guddi nga jóg nga def nii def nii def nii nga tëb jógal fu sori nga daanu donc jeux yooyu xale yi bu ñu koy xool yow parent bi tu n'es pas en mesure nga xam xale bi fan lay dugg ak fu du dugg lenn nag mën na laa sauver am na mbir yoo xamante ni parfois mën nañ laa sauver c'est un banaal banal allo salaamaaleykum allo sëñ Mass waaw ah, kon dafa génnoon xam naa. waaw uh-huh. ah, bisimilah bu yëgalee waaw. waaw. xasida online. émission bi ngeen di dégg rediffusion la. seen rajo bi di xasida online. waxtaan wi ngeen di déglu dañ koo tegaat. waxtaan wi ngeen di déglu dañ koo tegaat. jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak rajo xasida online Touba Monde bi. waaw lenn nag mën na laa sauver mooy nga utal xale yi passion waaw. passion bi mën na la sauver parce que bu fekkente ni sa doom mi ngi football calcio mu passionné wu ci calcio bi sa bu toogee ci kër gi même bu toogee ci internet bi sax ma ngay xool ronaldino ma ngay xool messi loolu rek moo koy ñor leneen dootu ko ñor xëy na yow di nga am benn dina di nga am benn penci Seigne sëñ Assalam. Wa Seigne Cheikh ñu ne jaar bax jaay yow gëj daa dégg de Wa <laughs> ma ngi jégalu de baa yaa ci jàmm rek Ma ngi sant bu baax alhamdulilah nu leen jaar waaye ay toujours nag maa ngi maa ngi suivre émission bi mais dama dama am ay heures yu xaw a doy waar. kay bokk mi naa daf may daf may fekk ci liggéey bi. mais tey fi ma nekk comme dama nekk ci réception moo tax du ma mën ma mën di woote mais toujours maa ngi déglu. ak naa jërëjëf Dia jërëjëf mbaa yéen a ngi ci jàmm rek. di ziar yéen ñëpp nag. alhamdulilah alhamdulilah. Ah, di leen. Eh, dugguñu ñu mais ñu ngi teewee ñu ngi teewee. te tamit ci mais dana da baax sunu borom yàlla na sunu borom fay amiin yaa rabbi mais gis nga sëñ mais balaa ñuy egsi ci ci ci foofu ngeen toll mhm. mais dafa am yu bari yoo xam ne bii dafa dafa dafa jëkkee mhm. boo dee xool euh, maanaam Sénégal euh, maanaam la fa la dañoo bàyyi ba ba ba société bi lu lu bari yàqu ci mm-hmm. ndax yow Sénégal ngay ngay gis nit ngay taxaw ci ab rajo ñu taalal li micro ko ngay menacé ngay menacé doomu aadama tey mm-hmm. loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu nit ku ko ñimee def mais ñi me ngaa jël ay ay ay photo wala leneen dugal dugal ko ci dugal ko ci Facebook Mm-hmm. te loolu suñ loolu bi bu fekkee ne loolu bi muy am nit ñi nga xam ne bii ñoom war nañoo taxaw ne leen ah lii kat doomu aadama waru koo def waru koo def loolu suñ ko defoon maanaam ari du am mm-hmm. maanaam société bi dañ ko bàyyi mu muy dem problème yi di dem mm-hmm. problème yi di dem problème yi di dem ba ëgsi nag bii nag moom moo gën a garaaw parce que dafa nekk loo xam ne bii dafa dafa naqaree contrôlé wala suy am lay la muy yàq mooy bari moo moo mooy bari lool mais waa defar li ñu war a bi dafa bari du problème du problème kii bii nii rek mais problème yu bare bare bare bare bare waaw am nañ ci ay part de responsabilité surtout ñun ñi nga xam ne bi boo ko dee seet am nañu ay âge jëm jëm jëm yenn âge parce que ñun lu bari alors sëñ Modou Modou Mbaw waaw waaw salaamaaleykum sëñ Cheikh ñu ngi lay jaar nga baal ma rek tëj sa micro tuuti sëñ ma sëñ Maas Dia àggale ma jël la maa ngi jégalu waaw waaw bis naa sëñ Maas àggale la mhm. ñun lu bëree bëri bëri bëri defar nañ ko mais yàq yàq nañ lu bëree bëri bëri mhm. parce que am na lu bëri loo xam ne mi tamit deful mais nit ki nag lu ma def lépp lu mu def ci doole rek dina ci ci ci ci moom même suñu njaboot yi parce que ñu biñ am na ñu bari ñoo xam ne wii waaw sëñ euh, Mass dafa mel ne maanaam Mass dafa mel ne connexion bi day dagg wax ji day dagg lu ci bari li nga wax lu ci bari day dagg xam naa ah. euh, dama xam ne connexion bi day wax waaw baax na kon daal euh, maa ngi xam naay ba beneen ba ba beneen yoon tamit xam naay temps ma am tamit fii tamit dafa xaw a dafa waar parce que am na nit sama kanam fi maa maa ngi jégalu daal jërëjëf euh, a nañ lool namoon nañ la namoon ñu ngi lay bu baax di la ñaan mais nag toujours maa ngi maa ngi ci ligne bi di leen di leen suivre ak bi danañ ko dégg bu soobee yàlla jërë ngeen jëf jërë ngeen euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moom tam mu nekk fidèle auditeur rajo bi wax yàlla di ko yàgg ànd ak rajo bi di bokk ci auditeurs yi njëkk yi ñu ngi koy jaar baax di ko ñaanal jàmm ak mucc ak tawféex euh, sëñ Modou ñu ngi lay jaar baax Mbow naka waa rajo Milia. salaamaaleykum waaw ñu ngi ziar baax Mbow mbaa yéen a ngi am jàmm. ñu ngi leen ñu ngi am ñu ngi delloo ziar ñu ngi baalu àq ñëpp. ñu ngi baalu àq ñoom Demba Pape Demba ak ñoom ak ñoom euh, nu tuddati dama koy fàtte waaye. Vieux Sall ñongi jéggul ci parta gi gitu dé ya. waaw ñongi ci jamm alhamdullilah ñongi ngi lu dé émission bi bu baaxa baax alhamdullilah yalla yalla defal xéewal bu bare bari amin bak seen xarit amin ñu bokk samal ñu suñ jabot yi yépp amin ya rabbi amin ñongi ñaanal tamit eh, borom radio bi yalla na yàlla jëme kanam liggéeyam amin amin ya rabbi waaw xale yi de ñaan yàlla yàlla def ci xéewal rek waaye man de wax dëgg yàlla euh, xale yi daanaka fi ne nii moom thème bi moom boo moytuwul tey jii dinaa ko génn. déedéet waay. Mm-hmm. Ah, ñun danoo am lu doy sëkk fi mu nekk nii. muy lan. ah sunu sunu réewu xamante ni nii dégg nga mi ngi widd fi mu ne nii xale yi ndaw yëpp ñu ngi génn di dem. waaw loolu kay ci xale yi ah kay xale yi ci lañ bokk loolu kay ba tey génn ko xale yi. maanaam génn bi ñuy génn di dem nga xam ne suñ peuple bi mi ñëpp ñi ngi bandoo ne fi mu ne Afrique di dem loolu kay man moo ma jaaxal fim mu ne nii. dëgg la waaye sëñ Modou may may laaj ba xam ñun may laaj ba xam ne laaj ba xam laaj ba xam ñun yan njiit lañ yor. démb da gis nga démb démb ci samedi ji. bi ma taxawee ci gaaru rajo gaaru rajo milliard bi noonu allo ñoo lay dégg bi ma taxawee ci gaaru euh, rajo bi nii di xaar kaar pour war a dem yàlla xam ne laa lay wax ni sama rango xaw xawtut mu sotteeku ndax maanaam euh, ay xale yu ndaw nga gis tubaab yi gurgur leen foofu maanaam comme ku yor comme ñu yor ay xar presque plus de soixante personnes ñu ngi leen dajale foofu ñëpp ay nit ñu ñuul lañ te man li ma jaaxal dëgg dëgg dëgg mooy étranger yu xong yi ñoo nu ëpp fopp te doo leen gis ñu ñu ñu ñu dajalee leen façon boobu parce que ñun danoo gën a fees danoo ñuul te téet buñ leen dajale woon ñoom da leen gis mais ñi dañ leen dajale mel ni xam nga naar bu yore coggal <laughs> billahi wallahi taalaay laa la wax nii naar bu yore coggal loolu ci réer xool ko foofu te ñoom mais étranger yu xonq yi dugg si ñoonu ëpp fuuf mais ñoom ñoo ñooñu anañu ñoom duñ leen dajalee noonu oto carabinieri yi taxaw oto police yi taxaw ñu escorte leen ne ci benn angle mooy angle bi ci gaaru rajo bi ci wetu McDonald bi mhm. leen ci wetu angle bi mel ni yow ñii ay crime lañ wala dara lañ muy lu yéeme loo xamante ni nii te man damay gis toujours gaal yi bi ñuy ñëw ni nit ñu xonq ñi mën nañ la noonu dopp yaare te booba nga leen di mujj gis ñu dajale leen loolu man loolu samay mooy sama laaj te damay bëgg toujours maa yi tamit nun nuy bàyyi même ñun buñ tooñee nun nun même ñun buñ tooñee dañu am ay droit maanaam waruma euh, euh, bu fekkente ne waruma ko wax maa ngi ciy jégal ñuy bàyyi toujours di sotto walu taare suñ bopp Mhm. loolu lu man bokk na ci li ma gën a naqari même bu nit ki bu tooñee même bu rayee nit dafa am dur ay droit. dëgg la. waaw kon <clears throat> ay nit fu ñu bari il faut que ñu tooñ leen il faut que ñu tooñ ñu parce que loolu dëkk bi dañ ciy profité influencer nit ñi bañ ñuy far di tooñ ñun. ndax ñun mhm. ñoo jëkke ñun ñoo jëkk humilier suñu bopp. parce que humilier suñu bopp weesuwul. à chaque fois dañuy joxe exemple ci trois yi bu tubaab yi nangam tubaab yi nangam te tubaab yi ñoom li ñuy def ñoo yées fuuf ñun li ñuy def. Mhm. man daal loolu laa ni bu ma bu ma duggee dinaa ko ci barkeeloo. parce que mhm. vraiment man affaire yi ñun xamatuñ fu ñu jëm ba ci suñ njiit yi façon boobu la ñuy waxee façon boobu la ñuy demee. bi yi nangam di jël ay exemple yoo xamante ne nii de exemple yi li tax ñu koy jël dañuy bëgg ñun ñu ni nuut ñu def lu leen neex. maanaam li leen ci arrangé rek la ñuy wax pour ñun ñu ni nuut tëj suñ gémmiñ bañ def liñ bëgg def ba pare bu dee leneen la loo xam ne dañ ko war a roy ci tubaab bi muy ay hôpital yoo xam ne dañ ko war a tabax wala ay dispensaire wala ay docteurs yoo xam ne dañ leen war a lijjanti ba affaire yi jaar yoon loolu ni ko tubaab yi lijjantee lu tax ñu ne tubaab yi nii la ñuy lijjantee mhm. mais bu fekkee ni mu jëm seen côté la ni bu tubaab yi nangam bu jëmul seen côté jëm ci peuple bi intéressé wu leen loolu def leen ci njàngat ngeen xool incha allah incha allah mbaw bu soob yàlla man daal loolu laa ni moom bu ma bu ma dugg dinaa ko souligner muy fii muy Sénégal tubaab bi nangam tubaab bi li ñoom li ñuy def ah. yàlla xam ne nun nun ko def rus def loolu tubaab képp gis fii benn bis faagaagal njabootam dem kon see ñaare boppam pëlis naa sama njaboot waaw am na mbokk mu ñuy muy am na ñuy waxtaan ci ginnaawam su leen mën a ñaan yaa ngi en direct ci rajo bi xaw ma ban bokk la ci bu leen mën a ñaan ngir yàlla ñu may ko wàññi coow li moo gën daal. waaw ah, ma ma ma ter ma terminé. ma ne tubaab yi li ñuy def ñoom ñun rus ko def benn tubaab rek ngay gis bu xëy faagaagalam këram gépp xëy ko señaara boppam police ne rey ko sama samay njaboot. loolu nit ñi duñ ko def ñun duñ ko def. Mhm. rus nañ ko def. te bu su yàlla sax saa yoo dégg journal gis loolu. dëgg la man daal bu maa ngi ñaan daal ñuy bàyyi di humilier suñu bopp. Mm-hmm. jërëjëf buñ bëggee ñu jëm ca kanam loolu daal laay ñaan ñu ñu koy ñu koy moytu. incha allah bu soobee yàlla. baax na jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp di jéegul jërëjëf jërëjëf Mbow jërëjëf sëñ Modou ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci topp gi nga topp rajo bi ak di wax sa xalaat ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaan jàmm ak mucc ak tawféex ci rafet lu ànd bi euh, sëriñ maa ngi ñaan tam képp ku dugg ci ligne bi nga xam ne yaa ngi nekk en fekkee da ngaa nekk kër Euh, gars yi di waxtaan nga ñaan leen rek la mënee may wala nga génn sax yow dem foo xam ni dana xaw a kii tuuti ndax loo lu ñuy waxtaan rek dafay ñëw ci en direct ci en ci antenne bi koy tuub bu baax a baax. sëñ euh, El Hadj El ku baax fooy woote. waaw ah, maa ngi woote Bergamo. ah ñu ngi lay jaar baax mbaa ci jàmm rek. yëpp baax sant yàlla maa ngi jaay yéen ñëpp. ci baalu di ñëw comme ni ko sànq pap Demba waxee ak euh, Dieu parce que mhm. ba gisee affaire yi yëpp am nii uniquement pour man laa de. defe naa mhm. c' est uniquement pour destruction des mœurs parce que tubaab yi gëfuñu parce que mhm. réseaux sociaux yi pour man c' est une continuation parce que bu njëkk ba xam nga loo mën ay télénora ku koy teg si ay heure julli. bu ko defee nit ñi du ñu am temps pour pour pour julli. léegi nag booy xool réseaux réseaux sociaux yi mooy.

tubaab bi dañ siy profité uniquement détruire te loolu bon <laughs> c'est tellement difficile à ñu koy jéem a régler du question kii mais c'est tellement difficile parce que mm-hmm. ñu ko xam ne vraiment sax bu amee benn deux cent euros au lieu mu jox ko def ko si njaboot bi ab téléphone la ko ñu ko jëndee donc bon c'est tellement difficile donc vraiment man loolu amoon lu ma si. macha allah <laughs> noppale. macha allah macha allah El Hadj jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax xalaat bi rafet na am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm mu mel ne kër gi am na gan sunu sang sunu Serigne Serigne Mahmoudan eh, ak Serigne Ibrahima kon mel na ni jëwriñ ñu ngi ñu ngi ñu ngi saytu liggéey bi ndax eh, gis naa léegi ne sant Ibrahima xale ak sëñ Mahmoudan kon yàlla ñu ngi lay ziar bu baax Mbacke di la jox sa wàccuwaay di la ziar ci bis bu tedd bi ñu jógee. jërëjëf ñu ngi leen di delloo siyaar ba mu yàggal la fi guddal sa fan te wéral la ci bak Cheikhul Khadim bismillah amin amin amin amin sëñ Cheikh ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu lay fay yaram. tey rafetlu émission bi bu baax Pape Demba. jërëjëf Mbacke. ak Wiyé ñu ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf Mbacke jërëjëf. moom xam naa bu mënoon a changé tur bi tuuti rek def ko war a tur rek. Eh, Pape <laughs> xam naa ko xam naa ko dama koy tooñ xam naa Wiyé dama koy tooñ dafa mënoon a dindi tur bi def Pape rek da da jëndi Pape ji rek dana baax. di leen topp ndigal Mbàkke di leen topp ndigal bu neex yàlla léegi su su ko defee su ko defee ngeen indi lu am solo loo xamante ne eh, sëñ Tuubaa rek leen mën a fay alhamdulilah parce que nit ñi eh, samedi dimanche nit ñi vraiment dañuy am jot pour diglu lan moo leen di dimbale xam nga dafa am problème bu ngeen souligné bu am solo boo xamante ne xale yi ngeen wax yéen mais ci sama man xale yi defuñu dara nun la man la pap Demba la Cheikh Mbacke la wee la pap ñun ñoo def problème bi ñun ñoko def parce que li tax mané ñun ñoo def problème bi parce que ndax ñun am nañ soxla ci suñuy doom. boko boko waxé dana jaxal ñu bare bare ndax nit nga jur doom di xottil di jangal diko def dara mais euh, Cheikh Mbacke setlu li ma leen wax. fi nu nek ci diaspora bi kan moy def bu takusané mu wacc sangu ba set jël ay domam togo ak ñom ci ben bëriwul de àndandoog ñoom di seetaan télé àndandoog ñoom di connecté ndoo àndandoog ñoom di defandoog ñoom yëpp xale yi dañ leen di bëri ci néeg yi mm-hmm. bañ nañ ko ba léegi dañ leen a wuutal ay télévision ci seen biir néeg mm-hmm. bañ nañ ko ba dañ leen a wuutal ay télévision ay télévision ay téléphone ber leen dëgg la mm-hmm. te pourtant yonent bi moo ne woon xale bi bu juddoo yow yaa koy def yéefar wala nga def ko jullit ndax xale bi doon a gudd dara xamagut luy jullit xamagut luy yow yaa koy def jullit wala nga def ko yéefar Mm-hmm. mais xale bi bu juddee yow yaa ko jox éducation wala nga ñàkk ko jox bañ a jox éducation. Mm-hmm. léegi ndax liberté bu bëgg liberté bu ëpp ñu bëgg ci suñ bopp ndax andilul problème xale yi. Mm-hmm. am na émission yoo xam ne mas nañ ko cee wax yow Cheikh Mbacke da dangay dem liggéey man sañ moo dan damay dem liggéey. sama soxna day xëy liggéey. ngoon la ñuy daje ci kër gi ñun ñaar ñëpp dañuy sonn. moom mu war a togg wala bare wala raxas. yow nga war a def sangu ji war a noppalu war a lekk suba ngeen war a xëyaat. dëgg la waaw léegi ban heure la ñuy toog ak xale yi pour ne leen bul def lii bul def le kenn xamu ko. xale bi day làmbut rek xale bi fi toll li muy def bëggu ko de. Hmm. pour moom day làmbutu xamut lu mu doon mais day làmbut rek. dëgg la. Hmm. tey fi mu toll demal Sénégal nga xool lii ma lay wax du problème mu yar du problème mu dara ñun waajur yi ci boppam ñoo divisionné xale yi. da gis hmm. xale bu ndaw boo xamante ne du xam lu dul julli wala déet. dëgg la nga bu ndaw boo xam ne du xam lu dul jàngal xuraan nga gis xale bu ndaw boo xamante ne du xam lu du jàng xasida pourtant xale bi xamagul lu xasida yi jariñ xamagul lu alxuraan di jariñ mhm. mais dafa gis ne foofu rek lañ ko orienté fi ñu ko orienté fi la mën a jëm dëgg la bërki démb xale yi doon jàng alxuraan ngóor si doon jàng alxuraan du magum jëmm moo xamante ne daanaka li ko manqué dix-huit ans bëriwul ki gagné woon concours bi mhm. waaw nee na téléphone sax du ko yor pourtant manqué wu ko de téléphone manqué wu ko mhm. mais dañ ko caa yar mu xam ne lii moom moomu ko ci lii leela moom lee leela war a def mm-hmm. léegi nag kon fi ñu toll fi li ñu war a jàng ñun ci suñ wàllu bopp ñun ñoo war a xool ñun fan la ñuy teg suñ tànk bala ñu naan xale yi bàyyi leen nangam mm-hmm. te fi ñu toll lii ma lay wax ni toogal di ko seetlu dama laa jëlal connexion yeeg nangam ak nangam pourtant ñun ñooy toog di seetaan ak sabar ak gone yi suñu suñuy doom ci suñu sal mm-hmm. nit di fecc di génne ay yére ñooy toog di seetaan film yu bon ak suñuy doom xale yi di ko mais léegi nit ki bu fekkente ne waajur wi préparé wuñ ko ba mu mat nan lay man a préparé doomam. mooy loolu ngeen wax wax wax jëpp a ngoog sëñ bi wax jëpp a ngoog. waajur yi ko ba mat nan lay man a waajalee doomam. Ah. dëgg la mënut a nekk. parce que waajur wi moo war a mat ba pare parce que xale xamagul dara yow yaa koy wax xamal ko ne ko. 4 mm-hmm. heures ba 5 heures war ngaa connecté wu war ngaa dugg ci carton animati seet ah, seet carton animati boo xamante ne day jàngal xare bi éducation. lan wërta wacc dara ci mbedd mi wërta saaga nit wërta wërta wërta wërta wax nit lu ko naqar ci wërta def nangam nangam tànnal ko ko ne ko bu heure bi jotati na nga taal télévision ba dem seetaane ko mhm. heure bi na nga connecté wu parce que man sa waajur laa te dama lay soxla ci biir kër gi te dama laa bëgg a jot téléphone mais bu fekkee yow da nga koo boyal bàyyi ko ci lépp xale moom xamul dara day làmbut rek dégg naa mhm. kii eh, Pape Demba yaakaar naa xawma bi moo ko wax léegi ci ci ci site boobu nga xamante ne dañ ko tere xale yi ñu ci di ci ñu di ci dugg te mhm. fi boobu ñaata xare la rey ñaata mm-hmm. xare da nga ciy dugg ñu di la jàngal defal nangam defal nangam defal nga xam ne nga xam ne site boobu moom mooy mujj di yar xale bi yow duutoo yar xale bi mais site bi mm-hmm. mooy mujj di yar xale bi ba lu mu ko wax mu def ko ba lu mu ko wax mu def ko mm-hmm. daggal sa yaram mu dagg sa yaram defal sa tatouage nangam mu def tatouage nangam solal yére bu xong mu sol yére bu xong daggal ci sa kawar tuuti texte mu dagg ci kawaram texte mu dem ba gëm loo ko ba mujj ne ko léegi defal nangam nga xam ne day dem ba mujj xaraloo xare bi taxawal ci abetage nga daanu parce que yow duutoo dee mukk xale bi porowaata ko ñaata xale ci gaañu léegi dafay am yoo bari yoo xamante ni sëñ Cheikh bu fekkee bëgg nañ ko defar ñun waajur yi ñun ñoo war a ñor ba noppi hmm. mais ñun waajur yi ñoo ñorul parce que li tax ñun ñoo ñor ñun dañoo ñëw fii bi ñu ñëwee ci àll bi li nu gën a rey dañoo ñëw yaakaar ne àgg nañ ca tubaab ya tey jegewuñ leen hmm. loolu li ñu gën a rey parce que ñu bokkuñu ay éducation bokkuñu nu ñu yare suñuy doom xale yi fi toll nii tubaab gis nga ko tubaab moo gën a bëgg xale ci adduna mais mun ta yar dëgg la hmm. mun ko yar day bàyyi xale bi xale bi nekk ci lu ko neex rek. topp ci li leen neex rek moom xamuñu lu neex xale la moom ci lu ko ci moom ci lu ko neex rek ci lu ci lu ko neex rek la ko yar moom. ci lu ko neex rek xale bi bu ne fowukaay sàngam laa bëgg fowukaay gam bëgg la koy jënd bu dee fetal la bu dee bu dee kii même yow sa doom sax fowukaay yi nga koy indil ci biir kër gi da nga ko war a segg parce que xale boo xamante ne xamagu dara nga jëndal ko fetal muy fetal bu ëllëgee day bëgg a xaar dañ kumpa lan moo nekk ci fetal parce que da ko xam légui nak li ci problème bi moy kon kon kon fiñ tollu seen émission bi dafa am solo am solo go xamné xamna duma guddal ndax lu bari daf ma ci raw waye li ëpp solo dal mooy wayjur yi ño wara xamat xamaat wayjur yi lañ wara jangalat ñom ñoy kan ndax jere gene jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo xasida online tuba monde bi jëfal te jël émission bi ngeen di dégg rédivision la waxtan wi ngeen di dégglu dañ ko tégal seen rajo bi di xasida online. waajur yi moom ñoo xamul ñooy kan nag waajur yi mooy xamul da ngay gis koo xamante ne même soxnaam da koy bàyyi muy connecté wu soxnaam da koy bàyyi muy par exemple tey ngaañ bi mu andi tey am na ci ñu bari ñoo nekk ci réew mi ñoo xam ne Pape ba ñoom xam nañ ci dara suñu Cheikh Mbacke ñoom yéen ñooñu wee am na ci ñoo xamante ne seen jabar day wu ba tëlu tëdd toog a teeg dëgg la nga xam ne fi ñu toll bu yàggee day indi ay problème ci sëy bi parce que jëkkër ji du gis yow fi ndoolu boo wàccee li ngay njëkkante mooy téléphone ba xoola téléphone léegi ñu ci def ni mu bare xoola léegi yow nga wàcc am lu mat deux heures de temps ci nga war a noppalu deux heures de temps yi nga war cee dugg ci Facebook dem liir WhatsApp dem liir Viber dem liir Twitter dem liir Instagram maanaam nga xamante ne yow fi mu toll benn bu ci nekk da nga ko def da nga ci def da nga def lu ma 30 minutes léegi whatsapp moom moo ci gën a yàqu ndax whatsapp moom léegi da am 1000 groupe yoo xamante ne groupe bu nekk ñaar téeméeri nit a ci nekk kenn ku ci nekk nga bëgg a diglu la mu wax bëgg a lire vidéo bi mu wax waaw léegi kan ngay amal jariñ sa jëkkër sa jabar sa jëkkër wala say doom boo bëggee toog bëgg a lire message yoo xamante ne junniy groupe la a xam li mu wax lan tey lim lekk tey lu liggéey ban problème la dëgg la. problème day am léegi nag kon lu mel noonu te ci ngeen war a wax ba pare jur yi jéem a tegu ci yoon ba pare xam naa duñ duggal ndax bari nañu bëgg a. macha allah ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te te xam ne lu bari dañu cee moo tax mënuñoo participer dëgg-dëgg yi. macha allah ñoo ngi jégalu bu baax a baax lu ci nekk njuum te ci ñoon la ngeen jégal. jërëjëf mu dem Mahmoudane jëf ñu ngi koy sant bu baax ci dugg bu am solo boobu nga xam ne dugg na ko laal tamit li nga xam ne mooy góom bi paap mooy mooy mooy mooy mooy mooy wajur bi bu ñu ko préparé wul mënut a préparé kenn loo jàngul mën na koo tari mu mel ne kon lu ñu amoon ci waxtu romb ko bu baax a baax maa ngi jégg sëñ Modou Mbaye romb nañ waxtu wi xam naa kon euh, gars yi nga xam dugguloon dañ ma jégga rek bu fekkee sëñ Ibrahima na ñu jël ko bu sëñ Ibrahima ñëwul nag xam naa ne sëñ Modou Mbaye ma ligne bi bu ko defee gars yi ñu tàggoo sëñ euh, kàddu ngay tàggu mbokk auditeurs yi mel na waxtu jot sëñ Cheikh xanaa xanaa bég ndax sëñ bi moom euh, dugg dugg bu am solo la dugg man man kay dama naan daanaka rek émission bi tëj na boppam ndax sëñ bi li mu wax tënk waaw tënk na lépp jërëjëf Mbacke ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool yow it te wér ndax euh, taxawaay bi rafet na ndax sëñ bi dugg na ba dugg ci manque de communication yi nekk ci biir kër yi euh, te loolu day dem bay indi conflit sax sa digganteeg sa doom sa digganteeg sa jabar ndax da ngeen di dem ba waxtaan bu amatul réeroo day am saa su ne dëgg la olof ñun bañ nañ ko ba ñun ñoo ko wax euh, indiwaat na it diggante éducation ak instruction ndax xam nga tubaab yi fii du ñu yar a yar amut yar du yar te loolu sëñ bi dugg ba biir ndax lu mel ni Sénégal euh, ministère yi ministre de l' nationale la dañ lay jàngal ba noppi yar la école ba sax maître ba bu la séenee ca mbedd ma am am na am na sañ-sañ ci yow waaye fii maître bi euh, maître yi buñ la séenee ci mbedd mi duñ la wax dara sëñ bi dugg na ba dugg ci ci différence yooyu jàngat bu bari nag lañ ci am incha allah mbaake danañ danañ ko jàllale waat feneen nag feneen ak feneen bu ko defee mbokk yëpp. Euh, salaamaaleykum. Ah, aleykum salaam. waaw sëñ maa ngi doon tëj suñu alaaji kay waaw bisimilah suñu alaaji bisimilah. waaw sëñ bi ñu ngi ziar baax a baax sama man maa ngi wote benn jël. akasa ñu ngi jaar baax bisimilah. maa man de jàpp leen seen fidèle éditeur seen premier éditeur Brésil mooy man la. ñëpp akasa yàlla xam ne bu wàccee sama machine ma taalee xëy na online laay laay dégg. akasa loolu bëgg nañ ci lool bëgg nañ ci lool gay. wax dëgg yàlla eh, débat yi ngeen def neex na am na solo eh, eh, wax dëgg yàlla amul dara dara dara dara lu may raw ci rajo bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk na rajo xaadim rasul si ku tedd seexul xadim yéen a ngi yeete yéen a ngi jaane rawat na débat yi ngeen di def nii am na solo trop ñun ndaw ñi yéen a ngi si na ñun ndaw yi xam ne dañoo teel a génn dañoo génn Sénégal nekk ci bitim réew yu mel ni ñu rajo xas doon lay dañuy dimbali ci bëri bañ suñ culture raw ñu suñ diine tamit raw ñu moo tax bu ñu wàccee amuñu beneen soxla wax dëgg yàlla lu dul bi débat yi ngeen di def ñoo ngi si jàng ñoo ngi si am na solo lu mel comme débat yi ngeen indi tay bi ci walu réseaux sociaux yi amna solo trop rawat na ñun ndaw ñu maytu ko wax deug yalla mu doon jangale bu am solo bu am solo trop trop rawat na ñun ñoo ah, di sa lo lepp lu ko waral rek moy waajur yi ku génn sank wax na ko am na waajur xam bu la tàggatee tagate yar la ci diine yar la ci islam fëkk du la mëna wala ci dara dara dara dara deug la wallahi asif di sant samay waajur bu baax ñoom ñi xam ba may tuut tànk toll si ñetti at ñeenti at lañ ma yóbbu ca daara ji tarbiwu ma tax na ba fii ma nekk fii ci biir sama amul dara lu fees sama bët du wàllu dara lu dul diine du dul yoonu seexul xadim du dul yoonu diine lislaam moom dara leneen ñoruma tu tànk laa waaye wax dëgg yàlla dana ñoruma waaye wax dëgg yàlla moom am na solo trop trop trop trop si njàngale yi am na solo wax ji am na solo comme li génn saa li mu wax mag ñi nekk ci kër gi moom waroon a tere xale yu bari ñoom ñoom buñ jëlee safaan ba rawat na ñun tut euh, tut tàngis ñoom la ñuy roy dëgg la waaw te moom bo bonakul déet boo liggéey rek leneen nga ci euh, rëccu rëccu rëccu moo ci am rek dëgg la waaw wax dëgg yàlla jàngal yi am solo kontaan naa trop trop trop jàppale leen moom moom déglu bee ëpp déglu déglu bee ëpp woote sa yaakaar naa ma ñettoon xam naa lu man ñaari at ñetti at yi moom manqué waaye heure moo wàccee sama sama machine moom day tàkk day tàkk xas da online rek plaque ay kale bàyyi ko bu may tëdd sax ci falay fanaan ndeysaan ah, wax dëgg yàlla di leen safoo bu baax a baax wax dëgg yàlla li ma bëggoon a ba mu leen ca toog xol bee fees ba fi mu ne nii li ma bëggoon yëpp damaa rëcc walaay xam nañ ko xam nañ ko baax a baax génn génn di génn seen réew nag di dem nag wax dëgg yàlla loolu moom potu état la am na état ñoom ñu doon ñu doon tàggatee ak seen ndaw liggéey ñàkk liggéey bu bu ak ñàkk liggéey ak ndaw am luñ jàpp rawat na ñun doo xam ne si daara daara produire daara la daara moo ñu yar amuñu dara luñu prévoir lu yow yaay génn sa bopp dem utul loo jaay wala nga ut loolu liggéey loo defal sa bopp mm-hmm. waaw rawat na am na vidéo bi ngeen doon wax nag ci xale jigéen boobu lakkoon nekk Touba man groupe whatsapp suñu groupe biñ bokk fii bañ ma ko njëkk envoyé bu ma xoolee yaram bi rek dama dama ko supprimer seetaanuma ko parce que nii nee naa politique yàq ci wor ma parce que rawat na góor sax ne ku baaxut góor rawat na ku jigéen jigéen xam ne day màgg ëllëg day am njaboot mm-hmm. billaay ki nga njëkk a digal ki nga njëkk a dugal suñu groupe whatsapp ba ma ko dégloo ba woo ko dama leen yéen nekkul réseaux sociaux wala whatsapp groupe whatsapp bu ñu fi créé baax na am na safaan am na am na baaxin waaye bu ñu koy def pour luy yeeti nit ñi yéen dañuy dugal dara sax ne nee nañ ko partagé ñaata nit nangam ak nangam hmm. da ngaa am wërsëg wala day yokk chaque jour man moo diggee nee naa li man diine l'islam ak suñu borom ba muy wax ba muy bind ci alxuraan nangam waaye la nangam est ce que boobu whatsapp amoon na wala nangam am na whatsapp bu amul woon kon waaw whatsapp amul woon ndax suñu wërsëg wala suñu yokkate ci whatsapp la nekk ma leen bàyyi leen diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme feeñoon ba mu kooku ba mu ko partagé wul dafa am ñaata fan la am dee wala ñaata fan la am mu soppeeku nekk nangam nañ bàyyi yooyu yooyu baaxul dëgg ñuy dugal suñu groupe WhatsApp digal leen lu ñuy yee lu ñuy amal njariñ man amul dara ba ma a xàmmee ba léegi amul dara lu ma mës a envoyé ci WhatsApp bi ñu ko envoyé ñaata personne balaa jour tàngam di nga yokk amul lu ma mës a partagé du dara ba ma xamee am téléphone léegi mosuma partagé dara rawat na ku xam ne dañ ko war a suturaal doomu aadama suñu borom moo ko njëkk a suturaal war na dëgg la munoon fi mu tëdd nii munoon foo ko soxla woon na ndimbal munoon nañ ko filmer pas ñu géey filmer ko lépp mm-hmm. mu commencé ci kawam jëm munoon nañoo filmer ñëpp xam ne kii sonnoon na laaj na ndimbal te Sénégal rawat na am na ay waaye defal yàlla ga nekk Touba googu mu nekk rek tekku seexul xadim waxuma la dara sax foofu rek mënoon nañ ko njëkkoon a faj dëgg la saafara si jor jàngoro tamit mooy lii rek parce que ba koroog euh, parce que internet bi moom loolu ci xas a dugal moom dugg na ci doo mën trop effacé yooyu mi ko dugal boo ko effacé sax am na ñuy xam ne def na si ñoom du dañ. dëgg la. waaw wax dëgg yàlla ñoo ngi jégalu guddal nañ waaye ñoo ngi. macha allah am na solo am na solo jërëjëf am na solo jërëjëf. Guèye yàlla jàpp seet moom. la fii ci Brésil moom seen premier auditeur moo ngi fi Alaaji Gaye moom wax dëgg yàlla di leen bëgg di leen wax dëgg yàlla am na jàngal yi am solo xasida yi am na solo trop trop trop kontaan naa ci yéen yàlla yàlla dañu am fay ayuntu be Seexul Xadim yàlla na leen fay ba rajo bi lépp li ngeen ci séntu yàlla na mel na jumaay Tuubaa gi yàlla na mel na sorol Tuubaa gi lampal fu waay tool di ko seen ci barke amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ El Hadj Gaye ndeysaan ci kàddu yam solo ñaan yàlla yàlla na mu ta boole ñu ko doon woote ba ba jaar baax sëñ Modou Mbaye Thiam kon mën ngaa tëj ligne bi ndax euh, xaabaabal nañu tey bu baax a baax sax. Mm-hmm. ndax euh, il est onze heures moins te gars yi xam naa guddi nañu war nañoo tëddi. maa ngi jégalu nag soxna yi soxna Alice maa ngi koy jégalu baax ak soxna mm-hmm. Fatou Kine <laughs> te xam nga soxna borom këru jàmbur ba heure bi nag ñu ngi koy tuub baax waaye nag ñu ngi ci waar bu am solo kon sëñ Pape kàddu gi nga tàggu bu ko yi. sëñ Cheikh xam nga émission bi auditeurs yi koo déglu ba mu jeex ñu doog ko commenté. dëgg la dëgg la. ndax bi ngay wootee boobu gaa yi dañoon déglu ndax fi ñu toll woon eh, ragal naa ni nit ñi mënee suñ ko woon dog eh, maa ngi nuyu sëñ Modou Mbow ndax siñ Modou Mbow dafa dafa dafa dafa dafa maa dafa dafa dafa dindi sama lenc. Mhm. ndax tey jii ci tëj bi eh, ñaari ñaari baat laa bëggoon tëjee maanaam ñaari ñaari ñaari kàddu rek. Mhm. benn bi moo doon. fàttali sunu mbokk yi auditeurs yi ak ak jaaxle bu ñu am ndax tey jii mooy le 2 juillet sëñ Cheikh. dëgg ñu ngi jëm ci élection yu ñuy def le 30 juillet. Mhm. ba jamono jii ñuy wax kenn jotagul carte d'identité xamuñu fu carte nekk. loolu jot na euh, jóg jot na nit ñi jóg am laaj bu ñu laaj sunu ay responsable euh, ci yan condition la ñu war a dem voté boobu moo di bu jëkk beneen bi moo di suñ caa mm-hmm. euh, nit ñi ñëpp nekk am nañ responsabilité suñ Modou euh, Modou Mbow dafa def benn laaj bu am solo ah, euh, jamono yi damay am gàcce boo xam ni mënuma la ko wax suñ Cheikh ndax yàlla dafa dogal man ak vieux dañuy dem ñun ci institution yi la ñuy liggéey mm-hmm. jamono yi ku xool Europe rawatina Italie bii ñu nekk mm-hmm. ñu ngi ci émergence bu yéeme. émergence mmh. migration ne. dëgg nañ deux mille dix sept bi bi ñu commencé ba léegi soixante dix sept mille immigrés jàll nañ egg xamuñu ñaata moo ni la la quinze mille ñi cinq mille ñu ne ni ëpp nañ ko. tey. Euh, Italie ak Europe mënuma la wax ñaata sommet extraordinaire la ñu def. am na bu ñuy waajee rek diggante Allemagne ak France ak Italie. waaw mhm. sommet extraordinaire yoo xam ne ay doomu jàmbur lañ ko def te bu soobee yàlla buñ ko defee danañ invité Macky Sall mhm. danañ invité yeneen président yi denn ci wa euh, gouvern euh, région sahélienne bi yëpp subsaharienne mhm. bu ñu ñëwee xam nga lu ñuy wax tàllal seen loxo pour xaalis man yaakaar naa ne jamono yi eh, eh, eh, réunion d'émergence OUA moo ko waroon def wala pays yi nekk CEDEAO ne mhm. jóg jot nañu téye sunu ay doom mhm. ndax ku ku dem ba mënatuloo téye say doom boo ne mën ngaa yore sam réew ah du ma wax nga dëgg de waaye lu lu mat a seetaat la dëgg la moi je trouve que nos présidents africains ont failli à leur mission ndax tey jii président africain bu amul gàcce ci benn doomu africain de tey jii benn gis ngeen e, e, Europe bu ci benn doomu Europe faatoo ni mu leen di méttee fu mu mënti nekk danañ dem jëli ko euh, rendre ko honneur yëpp doog koo jëbbal ay mbokkam ba pare accompagner ay mbokkam ci wàllu accompagnement psychologique accompagnement financier waaye suñ

man yaakaar naa ni képp kuy émigré war nga jóg taxaw moo xam dëkk boo mënti bokk man tey ji Sénégal laa bokk kon suma président laa war a mën a interpeller dinaa ko bind suma Facebook adresser une lettre ouverte à notre président de la République man yaakaar naa conseil interministériel yi ñuy def ak inauguration yi ñuy def jamono yi amul lu ko gën euh, euh, euh, lu ko gën a lu ko gën a lu ko gën a jàmp lu jóg taxaw urgent mhm. woote sommet africain pour taxaw problème immigration kese barki demb lañu woné euh, ci désert bi djuroom fukki africain faatu ba yakku ah, ñu war la ñu ay sénégalais ngi ak ay gambien lañu ndeysaan ak nigérien kay Cheikh ci na jot na jóg jox euh jotna ñun ñep ñu jog interpeller sunu ay ay ay ay ay parce que tay ji li ñuy wax ay euh, plan Sénégal émergent ay nangam ak nangam lepp li moko gëna gën doon priorité ndax tay ji euh, euh euh ku mënti sa say doom munoo émerger sa réew loolu daal foogalo euh, ma def bo xamni dina ko bind nak publiquement bi bo ñu né damay politique parce que man sama dëkk la wara mëna interpeller je pense que képp ku yoré nationalité benen dëkk devoir la nga juk taxaw def demande ce président de la république Lolo tax damay wat wax ni ñun on n'a pas besoin d'un secrétaire wala d'un commissaire. On a besoin d'un ministre des Sénégalais de l'extérieur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, jërëjëf ñu ngi lay sant Pape di la gërëm euh, taxawaay bi Rafetna. na kon euh, dégg nañu loolu ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne intervenir nañu ci émission bi wax dëgg yàlla euh, di sant bu baax Mass Dia doon woote Milano ñu ngi koy ñaan jàmm ak mucc ak tawféex sëñ Modou baw Touba rajo Milia ñu ngi koy ziar bu baax a baax El As nekk fële ci Bergamo ak sëñ Alaaji Gay doon woote bu Brésil ñu ngi koy sant ko gërëm eh, soxna Bousso Niass Bergamo ñu ngi koy ziare di ziare sëriñ Mahmoudane Mbacke Touba Novara eh, di ko ñaanal gudd fan ak wér Mbacke di ziar sëriñ Ibrahima Ndiaye xel yi di sant nag bokk yi ma àndaloon ci liggéey bi muy sëñ Pape Demba Dia Touba Toscana sëñ Tall Pape Mokhtar Tall ñu gën ko xam ci biir ci Touba Parma ak nag sama technicien central muy sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall gudd fan goo ànd ak wér xewal yu baawaan Mbacke Cheikhul Khadim sidna Aliou Mbuub jëkk bi murit Pape euh, Gaye euh, ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi yëpp fàttali sëñ Abdoulaye Diop Daaru Xasanat yi nga xam ne ñu ngi dégg rajo bi di leen ñaanal jàmm ak mucc ak tawfiix di siyaare bokk yëpp di baalu tamit ak ñëpp ñëpp fu suñu kàddu àgg ñoo ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp topp ñu kenn dara yàlla yàlla defal tawfiix ak xéewal ak sutura ak teraanga barke Cheikhul Xadim ñu sax ci sëriñ bi sax ci bëgg sëriñ bi euh, ilaa yawmi diin ñoo ngi yeesal njaal yi ci sang y tedd yooyu fi bu Serigne Moustapha Cissé bu Pire euh, yàlla yàlla yërëm Serigne Aliou Mbacke mu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma Serigne Issakha Mbacke mu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ak Serigne Mame Balla Mbacke bu euh, Serigne Moudou Balla euh, di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu tudd ci hôpital seen yaram si tànte yàlla yàlla yëkkati leen barkeb man dëggu sifaay yi ñi nga xam ne dañoo ne ci caabi féet leen ginnaaw yàlla leen yàlla sam ba ñu amaat seen liberté ndax dara gënul précieux liberté mu ngi ñaanal mbokk yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu njaboot gi ci wàllu liggéey bi ci wàllu kii bi yàlla na ko yàlla saafara ci barke gese la bi ci am sala fa kullu ngi ñaanal mbokk yi jiitu ju barzaq yàlla na yàlla yërëm leen woyof suuf seen kaw tabbale aljanna leen maraak yërmande yàlla na at njub ba keroog ñu leen di fekk ndax alaa kulli haal daañu taal mu ne leen présenté seen émission diaspora dimanche bu nekk ci rajo Xassida Online Touba Monde bi leen ñaan la jàmm di ko sàkku ci yéen وقونا وكن لنا وهب لنا حسن ختام ربنا وسلينا على النبي وسلم وقل بهدايه كل المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Diop way juróom wu góor ñu koy wax Serigne Mor Diarra Diop moo wàccub liggéey ñuy sàkku ci yéen nag ngeen ñaanal ko defal ko Fatiha ak ñeent fukki Ixlaas ak benn tëjee ko salaatu ala nabi ku man xeesit ak jaawartu nga jàppale ñu ci dimbale ñu ci defal ko ko addiya moo ak jullit ña nga xam ne fekk na leen fa ak jullit ya ko fa fekkaat yëpp ak jullit ya ko fa nar a fekk yëpp kon serigne Mor jaar Diop di wayju juri sunu mbokk sunu mbokk talibé don amal dib taalifkat muy serigne barbi Diop mo wacc bi liggéey muy serigne Mor jaar Diop ñoo ngi sakul ñaan ñep rek ndax rajo Xassida online ñoo ñak kon nak ñoo ngi leen di sant di sakku ngeen defal koy ñaan bu baaxa baax rek suñu borom dal ko yermale bi jaay seydil awalina wal sidina wa maulana muhammadin barke mam Cheikh ibrahim Fall السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu ala muhammadin wa raden xadimihi mbokki julli ci mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi jiital ci nuyoo boobu rek mu Cheikh Mouhamadou Bachir ñaanal ko fan gudd ak wér gu yaram ba mu dund ba yëggale yéeneen ci sëriñ bi waaye ñaanal julli ñëpp rawatina taalibe yi ñaan ci liggéey boobu ginnaaw loolu yéen ñi nga rek yéen a sàllu déglu rajo Xassida online Touba Monde bi ak Touba Monde TV ñoo ngi leen yégal ni allah bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci ngoon oustaz Nabi Gaaj dina dikk ak yéen ci mindalu islam ni mu ko baaxool daan dikkee ci jamono ju nekk ajjuma ju ne waaye nag mindaru islam bi yoon mu ngi waxtaan alquran wal ak alfilmul hadisa muy li nga xamante rek moo di le Coran et la science moderne bu boobaa nag dana fi andi ab lëkkale boo xamante ni alquran junjoon na ko bu yàgg-yàgg muy nga xamante rek noonu la suñu borom bi sa doomu aadama waaye ñu dem ba yàgg science moderne dëggal ko nga xam ne dana dellu ci wax waxi suñ boroom waaye dana andi nag lan moo waral xidda ji nga xamante ni lislaam digle na ko ci soxna soo xamante ni jëkkëram marital yi dafa wàccub liggéey wala mu tàggoog boroom këram lan moo waral ji idda ak nu nan la ko science moderne gisee kon minbarul islaam a ngoog ajjuma lay doon vingt et une heures ci heure Italie ci rajo Xassida online lëkkaloog Touba Monde bi TV ki koy amal di oustaz Serigne Nabi Gadji bu leen ko kenn nettali ngeen mën a dikk en direct andi seen contribution waaye jàng ci waaye ñenn ñett di ci fàttaliku ndax moo ni fa zakir inda zikri tanfawul muminin min barol islam kon ajjuma lay doon incha allah 21h heure Italie rajo Xassida online lëkkaloog Touba Monde bi TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kat ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu rek te xam ne àdduna amul benn amul amul benn solo nit ki bu juddoo